ca njaalbéen ga fekk na kàddu gi am te kàddu gi ma nga woon ak yàlla te kàddu gi yàlla la woon moo di ki nekkoon ak yàlla ca njaalbéen ga ci moom la yàlla jaar sàkk lépp amul dara lu ñu sàkk te jaarul ci moom ci moom la dund gi nekk te dund googu mooy leeral nit ñi leer gi feeñ na ci biir lëndëm gi te lëndëm gi jàpp ko yàlla yónni woon na nit ku ñu naan yaxya kooku ñëw na doon ab seede ngir wax ci mbirum leer gi ñëw na ngir ñépp dégg li mu wax te gëm moom ci boppam du woon leer gi waaye ñëw na ngir seede leer gi kàddu googu mooy leer gu wóor gi ñëw ci àddina te di leeral nit ku nekk àddina la nekkoon si ñu sàkk jaarale ko ci te àddina xamu ko ñëw na ci réewam te ay ñoñam nanguwuñu ko teewul ñi ko nangu te ci turam may na leen ñu am sañ-sañu nekk doomi yàlla ñooñu judduwuñu ci deret walla ci bëgg-bëggu yaram walla ci coobarey nit ñu ngi juddu ci yàlla kàddu gi ñëw doon nit dëkk ci suñu biir gis nañu ndamam mu fees ak yiw ak dëgg ndam li baay bi jenn doomam ji mu am képp yaxyaa ngi koy seedeel te yëgle na lii nee na moo taxoon ma wax ne dina ñëw sama ginnaaw waaye moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may juddu kàddu fees na ak yiw te ñun ñépp jot nañu ci suñu wàll mu barkeel nu ay yooni yoon ndigali yàlla yi ci gémmiñu musaa lañu leen jaarale yiw wi ak dëgg gi Yeesu Kirist moo ko indaale kenn mësul a gis yàlla waaye bajo bi di yàlla te nekk ak baay bi moo ko xamle lii mooy seedes Yaxya amoon na bis yawut ya yónni ay sëriñ ca Yaxya ñu ànd ak ñu soqi ko ci giiru Léwi ñu nga jóge Yerusalem ñëw ci moom di ko laaj mooy kan yi tontu na leen te nëbbu ci dara wóoral na leen ne moom du almasi bi ñu laaj ko ne kon yaay kan ndax yaa di Iliyaas mu ne leen déedéet dama Iliyaas ñu ne ko ndax yaa di yonent bi war a ñëw mu tontu ne leen déedéet noonu ñu laaj ko ne wax nu yaay kan ngir ñu mën a tontu ñi ñu yónni nga ne yaa di kan yaxya tontu leen li yonent yàlla esaayi waxoon ne man maa di baat bi yëgle ci màndiŋ mi ne xàll leen yoonu boroom bi amoon na ñu bokk ca pharisien ya yu àndoon ca mbooloo mënu yónni woon ca yaxya ñu laaj ko ne ginnaaw doo almasi bi doo iliyaas doo yonent bi war a ñëw lu tax ngay sóob nit ñi ci ndox yaxye na leen man maa ngi soobe ci ndox waaye am na ci seen biir ku ngeen xamul kookooy ñëw sama ginnaaw te man sax yeyowuma tekki ay dàllam lii xewoon na ci dëkku betani ca ginnaaw dexu yurdaan fa yaxya doon sóobe ca ëllëg sa bi yaxya gisee yeesu muy ñëw ci moom mu ne xool leen kii mooy mboteem yàlla mi ñu nar a rey ngir dindi bàkkaari àddina moo taxoon ma wax ne am na kuy ñëw sama gannaaw waaye moo ma gën a màgg ndaxte nekk na laata may juddu xamuma woon kooku kan la waroon a doon waaye xamal ko bànni Israël moo tax ma ñëw di sóob nit ñi ci ndox ci kaw loolu Yaxya seede na lii gis naa xelu yàlla mi ci meloo pitax mu jóge ci asamaan tegu ci moom bi loola laata am xamuma woon mooy kan waaye yàlla mi ma yebal may sóobe ci ndox ne woon na ma di nga gis xel mu sell mi wàcc tegu ci kaw nit kooku moo di ki leen di sóob ci xel mu sell mi ya teg ca ne gis naa loolu te seede naa ni moom moo di doomi yàlla ji ca ëllëg sa Yaxya taxawaatoon na ca barab booba ànd ak ñaari taalibeem bi mu gisee Yeesu muy romb mu daldi ne kii mooy mboteem yàlla mi ñaari taalibe dégg li mu wax daldi dem topp Yeesu gestu gis ne ñoo ngi koy topp mu ne leen lu ngeen soxla woon um, ñu tontu ko foo dëkk ah, rabbi rabbi mi ngi tekki kilifa gi yeesu ne leen kaay leen gis noonu ñu dem seeti fa mu daloon ngonalal ko te tàkkusaani kaw la woon kenn ci ñoom ñaar ñi déggoon li Yaxya wax te topp Yeesu ma nga tuddoon André mi bokkoon ak simon pierre ndey ak baay andré dafa daldi dem seeti simon ne ko gis nañu almasi bi baat boobu mi ngi tekki kirist noonu mu yóbbu ko ci yéesu Yeesu xool ko ne ko yaa di Simon doomu Yowaana dinañu la wooye Sefaas Sefaas mi ngi tekki Pierre maanaam xeer cëlëg mu fas yéene dem diiwaanu Galile te mu gis Philippe yeesu ne ko toppal ci man Philippe ma nga dëkkoon Batsayda dëkku André ak Pierre Philippe dajeek Nataniyel ne ko gis nañu ki yoonu musaa wi ak yonent yi doon wax mu ngi tudd yeesu doomu yuusufa te dëkk nasaret nataneel tontu ko ne ah ndax dara lu mbaax mën naa jóge nasaret filip ne ko ñëwal gis naka la yeesu gis natanayel jëm si ci moom mu daldi ni ci mbiram xool leen nitu israyel dëgg a ngee di ñëw du dox benn tànku caaxaan natanayel ne ko noo ma xamee yeesu tontu ko ne bi la filip di laata woo gis naa la bi nga nekkee ca kër garabu figg ga natanayel wax ko ne kilifa gi yaay doomu yàlla ji yaa di buuru Israël Yeesu tontu ko ne ndax li ma ne gis naa la ca kër garab ga moo tax nga gëm di nga gis mbir yu gën a rëy yii noonu mu teg ca ne ca dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax di ngeen gis asamaan si ubbeeku malaaka yi baagante kaw ak suuf di wàcc ci doomu nit ki ñaari fan ginnaaw loolu ak ci am ca dëkku Kana ca diiwaanu Galile yaayu Yeesu teewe ko woowoon nañu it yeesu ca ceet ga ak ay taalibeem ca biir xew wa biiñ ba daldi jeex yaayu yeesu ne ko amatuñu biiñ yeesu ne soxna si loo ma bëggal ndaxte sama waxtu jotagul yaayam daldi ne surga ya def leen lépp lu mu leen wax foofu amoon na fa juróom benn laa yu ñu yett ci doj yu yëwute daan jëfandikoo ngir seen sangu set ndaa lu nekk mën naa def daanaka téeméeri liitar yeesu ne surga ya duy leen ndaa yi duy leen ba ñu fees bay rambat noonu yéesu ne leen tànq leen ci léegi yot ko njiitu xew wi daldi ko ci yót ci jiite xew wa ñam ndox ma yeesu soppi biiñ xamul woon fu biiñ booba jóge waaye surga ya tangoon ndox ma ñoom xamoon nañu ko naka noonu mu woo boroom céet ga ne ko ci xew yépp naan gu neex gi lañuy jëkke bu nit ñi doyalee ñu sog a génne ga ca des waaye yow danga dencoon gi gën a neex ba nëgëni firnde bi amee ca kana te diiwaanu galile moo doon kéemaan gi yeesu jëkk a def ci noonu la wone màggaayam te ay taalibeem gëm nañu ko bi loolu weesoo mu ànd ak yaayam ay rakam ak i taalibeem dem dëkku kapernawum waaye yàgguñu fa màggalu yawut gi ñuy wax bésu jéggi ba mi ngi doon jub si yéesu dem yerusalem ca kër yàlla ga bi mu fa demee fekk na ca ëtt ba ay jaaykati nag ak yu xar ak yu pitax ak weccikatu xaalis ya toog màbb ab yar kër yàlla ga ñoom ak mu tasaare xaalisu wecckat ya Daniel Taabalya daldi ne jaaykat yi pitax ya jële fi lii sama kër baay bu leen ko def marché taalibe mi fàttaliku mbind mii cawarte gi ma am ci sa kër mu ngi mel ni taal buy tàkk ci sama biir noona yëwute ne ko basi ni nga nuyu woon ngir dëggal ne am nga sañ-sañu def lii nga def yeesu tontu leen daane leen kër yàlla gii ma daldi koy yëkkati ci ñetti fan ñu ne ko nga ni kër yàlla gii ñu tabax ci ñeent fukki at ak juróom benn mën nga ko yëkkati ci ñetti fan waaye kër yàlla gi yeesu doon wax nekkul woon ab tabax aw yaramam ci boppam moo ko taxoon di wax ginnaaw ga nag bi yeesu deyee ba dekki la taalibeem ya fàttaliku li mu waxoon daldi gëm mbind mi ak wax jaleen yeesu waxoon bi yeesu nekkee yerusalem ca màggalu bisu jéggi ba ñu bari gis kéemaan yi mu doon def daldi gëm ci turam waaye yeesu wóoluwu leen woon ndaxte xamoon na leen ñoom ñépp te it soxlawul ñu koy xamal dara ci nit ndaxte moom ci boppam xam na xolu nit amoon na ca pharisien ya nit ku ñu naan ni Nikodem te mu bokk ca kilifay yawut ya genn guddi mu ñëw ci Yeesu ne ko kilifa gi xam na ni yàllaa yoon yónni ngir nga jàngal nu ndaxte kenn mënula def firnde yi ngay wone te yàlla àndul ak moom Yeesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax képp ku judduwaatul doo mën a seede nguuru yàlla ni ko dem ne ko nit ku xas ba màggat nan lay mën a judduwaate ndax day dellu ci biiru yaayam ngir judduwaat yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax ku judduwul ci ndox ak ci xelum yàlla doo mën a bokk ci nguuru yàlla lu juddoo ci nit nit la waaye lu juddoo ci xelum yàlla xel la li ma ne faw ngeen judduwaat bu mu la jaaxal ngelaw fu ko neex lay jublu yaa ngi koy dégg waaye xamuloo fu mu jóge xamuloo fu mu jëm noonu la melit ci képp ku juddoo ci xelum yàlla ci baat yooyu ni ko dem ne ko nu loolu mën a amee Yeesu tontu ko ne yow yaay jàngal <laughs> bànni Israyil te xamuloo mbir yi ci maa ngi la koy wax wax li ñu xam di nettali li ñu gis waaye nanguwuleen a gëm li ñu seede ginnaaw gëmuleen li ma leen di wax ci mbiri àddina naka ngeen mën a gëme bu ma leen waxee ci mbiri asamaan kenn mësula yéeg ci asamaan su dul ki fa jóge muy doomu nit ki te itam na Musaa sampe woon ab bant ci diggu màndiŋ ma takk ca jaan ju mu defare woon xànjar faaw ñu yëkkatee noonu doomu nit ki ngir képp ku ko gëm am ci moom dund gu dul jeex ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sànku mukk yàlla yónnewul doomam ci àddina ngir mu daan nit ñi waaye ngir musal leen képp ku ko gëm deesu la daan waaye ku ko gëmul daan nañu la ba noppi ndaxte gëmuloo ci turu doom ji yàlla am képp ci nii la àtte bi ame leer gi ñëw na ci àddina waaye nit ñi lëndëm gi lañu taamu ndax seen jëf yu bon képp kuy def lu bon day bañ leer gi te du ci ñëw ndax ragal ay jëfam di feeñ bëccëgu ndarakaam waaye ku def lu jub day ñëw ci leer ngir ñu xam ne def na ay jëfam ci kanamu yàlla ginnaaw loolu yeesu ànd ak ay taalibeem dem ci biir diiwaanu yude toog fa ak ñoom ab diir di sóob nit ñi ci ndox yaxya moom itam doon na sóobe ci ndox ci dëkku aynoon ca wetu dëkku salim ndaxte diiwaan booba bari woon na ndox nit ñi daan nañu ñëw ci moom mu di leen sóob booba tëjaguñu yaxya ci kaso foofa ay taalibe yaxya tàmbalee welante ak benn yawut ci mbirum sangu set ci kaw loolu ñu dem ca ya ne ko kilifa gi ndax fàttaliku nga kooko nga seede woon te mu nekkoon ak yow ca ginnaaw dexu Yordaan moom de ma ngay soobe ci ndox léegi te ñépp a ngay dem ca moom Yaxya tontu leen kenn mënula am dara lu ko yàlla joxul yéen ci seen bopp man ngeen a seede ne waxoon naa ne duma almasi bi waaye dañu ma yónni ma jiitu si ko kiy céetal moom moom séetam waaye xaritu kiy céetal dafay taxaw di ko déglu day bég bu déggee baatam mbég moomu moo di sama bos tey te fii mu nekk mat na sëkk li war moo di moom mu gën a màgg te man ma gën a féete suuf ki jóge ci kaw moo féete kaw ñépp ki jóge ci suuf nag ci suuf rekk la mën a bokk te ni nit yi àddina lay waxe ki jóge asamaan day wax li mu gis ak li mu dégg waaye kenn nanguwul li mu seede képp ku nangu seedeem nangu nga ni yàlla dëgg lay wax ndaw li yàlla yónni kàddug yàlla lay wax ndaxte mayu xel mu sell mi yàlla sol ci moom amul dayoo baay bi dafa bëgg doom ji te jox na ko sañ-sañ ci lépp ku gëm doom ji am nga dund gu dul jeex ku déggadil doom ji am loo dund gi waaye merum yàllaa ngi la tiim amoon na benn bis farisiyen yi dégg ne ñiy topp yeesu ñoo ëpp ñiy topp yaxya te ñi yeesu sóob ci ndox ñoo ëpp ñi yaxya sóob fekk yeesu moom ci boppam daawul sóob kenn ci ndox waaye ay taalibeem ñoo daan sóobe bi yeesu yégee loolu nag mu jóge yudde dellu diiwaanu galile bi muy dem galile waroon na jaar ci diiwaanu samari noonu mu egsi ci wetu dëkku Sikar ci tool bi ba mayoon doomam Yuusufa foofu la teenu ba nekkoon Yeesu toog ca pindu teen ba di noppalu ndax coonob tukki ba ci digg bëccëg la woon noonu jigéenu waa samari ñëw fa di root yeesu ne ko may ma ndox ma naan fekk booba nag taalibe yéesu ya dañoo demoon ca biir dëkk ba di jënd lu ñu lekk jigéen ji tontu ko ne yow ngay yawut man may jigéen ju dëkk samari nan nga ma mën a ñaane ndox jigéen ji wax na loolu ndaxte yawut ya bokkuñu woon ak waa samari ndab yu ñuy lekk noonu nag yeesu tontu ko soo xamoon li yàlla maye xam ki lay ñaan ndox kon yow ci sa bopp yaa koy ñaan te moom dina la may ndoxum dund jigéen dee na ko sang bi teen bi xóot na te amuloo baag kon foo jëlee ndoxum dund xanaa kañ xalaatuloo ni yaa gën a màgg suñu maam Yanqooba moom mi nu gasal teen bii mu naan ci moom ak i doomam wëgg ci juróom yéesu wax ko ni ku naan ci ndoxum teen bii balaa yàgg mu maraat waaye ndox mi may joxe ku ci naan du marati mukk ndaxte day nekk ci moom bëtu ndox buy bal di joxe dund gu dul jeex noonu jigéen ji daal di ko ni sang bi may ma ci ndox moomu ngir ma bañ a teemaar bay ñëw fii di root si yeesu ne ko demal woowu sa jëkkër te ñëw jigéen ja tontu ko ne aw ma jëkkër de yeesu ne ko wax nga dëgg ne amuloo jëkkër ndaxte amoon nga juróomi jëkkër te ki nga nekkal léegi bu sa jëkkër li nga wax dëgg la jigéen ja ne ko sang bi gis naa ni ab yonent nga nun nag naka jekk sunuy maam ci tund wee ngay seen lanu daan jaamoo yàlla waaye yéen yawut yi dangeen ni yerusalem lañu war a jaamoo yàlla yeesu ne ko jigéen ji gëmal li ma lay wax dina am jamono joo xam ne du ca tund wële te du ci yerusalem ngeen di jaamu baay bi yéen waa samari xamu leen li ngeen di jaamu nun yawut yi xam nañu li nuy jaamu ndaxte kiy musal àddina si ci yawut yi la jóge waaye jamono dina ñëw te agsi na ba noppi jamono joo xam ne jaamukat yi dëgg dinañu jaamu baay bi ci xel ak ci dëgg ñooñu nag ñooy jaamu baay bi ni mu ko bëgge yàlla xel la kon ñi koy jaamu war nañu ko jaamu ci xel ak ci dëgg jigéen ja ko xam naa ni almasi bi maanaam kirist dina ñëw te bu ñëwee dinañ leeralal lépp yéesu tontu ko maa di almasi bi man miy wax ak yow noonu nag taalibe yeesu ya dellusi gis muy wax ak ab jigéen ñu daldi jaaxle lool waaye kenn ñimiwu ko woon ne looy laaj walla lu tax ngay wax ak moom noonu jigéen ya wàcc fa njaqam daal di dem ci dëkk kaay leen gis nit a nga ku ma wax lépp lu ma mës def ndax kooku du almasi bi noonu waa dëkk ba jóg jëm ci yeesu fekk taalibe yeesu ya di ko gëtën ne kilifa gi lekkal waaye yeesu tontu leen am naa ñam bu may lekk te xamuleen ko taalibe yi di laajante naan ndax dafa am ku ko indil lekk yeesu ne leen sama ñam moo di def coobare ki ma yónni te àggale liggéey bi mu ma sant du dangeen naan fii ak ñeenti weer ñu góob waaye man dama leen naan xool leen tool yi ñu ngi ñor ba weex tàll di xaar ku leen góob kiy góob tool yi mu ngi jot xàppeeyam day dajale nit ñi ngir dund gu dul jeex ni ñuy dajale pepp kon boog kii ji dina béggandoo ak kii góob wax ji nu wax ne kenn dina ji keneen góob dëgg la yebal naa leen ngeen góob tool bu ngeen béyul ñeneen a ko béy te yéen ko jariñoo bi jigéen ji neewaa dëkk ba wax na ma li ma def lépp ñu bari gëm nañu yeesu ñu daal di dikk ñaan yeesu mu dal ak ñoom yéesu toog fa ñaari fan ñu bari gëm ko ndax li mu doon wax ñu ne jigéen ji léegi gëm nañu te du li nga wax moo tax waaye li ñu gisal sunu bopp te xam nañu ne dëgg-dëgg kii moo di musalkatu àddina si bi yeesu amee ñaari fan ci dëkk ba mu jóge fa jëm diwaanu Galile ndaxte moom ci boppam ne woon na ab yonent kenn du ko fay daal cim réewam bi mu agsee Galile nit di teeru ko ndaxte ñoom itam teewe woon nañu màggalu bés jéggi ba ca Yerusalem te gisoon nañu la mu fa defoon lépp noonu kon mu dellu si Kana ci Galile dëkk ba mu soppee woon ndox ma amoon na benn dagu buur bu dëkkoon Kapernaum te doomam feebar bi mu déggee ne yeesu jóge na yude ñëw galile mu dikk ci moom ñaan ko mu ñëw këram wéral doomam di wopp bay bëgg a dee yeesu ne ko yéen daal du ngeen gëm mukk fii ak gisuleen ay firnde walla ay kéemaan dagu buur ba neeti ko sang bi ñëwal balaa sama doom di dee before my child dies. ne ko demal. sa doom dina dund. kilifa ga gëm la ko Yesu wax daldi dem. bi muy dellu këram nag ko mu daldi ne ko xale bi dina dund mu laaj leen ci ban waxtu la tàmbalee tane ñu tontu ko ne démb ca njolloor la am ak féex noonu bàyyi xale ba daldi seetlu ne ca waxtu woowa la ko yeesu ne woon sa doom dina dund moom ak njabootam ñu daal di gëm yeesu lii mooy ñaareelu firnde bi yeesu def ci galile ginnaaw bi mu jógee Yude ginnaaw loolu yawut yi amoon nañu genn màggal moo tax yeesu demoon Yerusalem ci wetu benn ca buntu dëkk ba nag maanaam ci buntu xar ya am na fa bët bu tudd Betesda ci làkku yawut te ñu wërale ko ak juróomi mbaar ca suufi mbaar yooyu la jarak yu bari yu demee niki ay gumba ay lafañ ak ay làggi daan tëdd di xaar ndox mi yëngutu ndaxte ci ni ñu ko nettalee benn malaakaam borom bi daana wàcc léeg-léeg di jax ndox mi bu ndox mi masaa yëngu ba noppi jarab ju ca jiitu wopp joo aman daldi wér ca saasa amoon na fa benn waay bu feebaroon lu mat fanweeri at ak juróom-ñett bi ko yeesu séenee mu tëdd te mu xam ne woppam ji yàggoon na lool mu laaj ko ne ndax bëgg nga wér jarag ya tontu ko ne sang bi duma am ku ma sóob ci ndox mi bu yëngoo su ma ciy fexee dem ñu jëkk ma ci yeesu ne ko jógal jël sa basan te dox. Pick up your mat and walk. ca saa sa mu daldi wér jël basangam daldi dox mbir moomu dafa daje woon ak bisu noflaay ba looloo tax ba yawut ya daldi ne nit ku wér ko tey bisu noflaay la te sunu yoon aaye na nga yor sa basang mu ne leen ki ma faj moo ma jëlal sa basang te dox ne ko nag ku la ne sa basang te dox waaye waa ji xamul ki ko wéral fekk boobu Yeesu dem na te nit ñu bari teewoon nañu ca barab ba bi ñu ca tegee ab diir Yeesu dajeeg moom ca kër yàlla ga ne ko déglul fi mu ne wér nga bul defati bàkkaar ngir ragal lu yées lii dal la noonu nit ka dellu ko fajoon looloo tax yawut ya di wuta sonal daan na jëfe noonu bésu nooflaay ba waaye yeesu tontu na leen ne sama baay nekk na ba tey ci liggéey kon man itam damay liggéey baat boobu moo tax ba yawut yi gën koo wuta rey ndaxte yemul woon rekk ci bañ a topp ndigalu bésu nooflaay ba waaye dafa wax it ne yàlla baayam la ba teg boppam yàlla noonu yeesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax doom ji mënula def dara moom ci boppam li mu gis baay bi di def rekk lay def li baay bi di jëf la doom ji itam di jëf ndaxte baay bi bëgg na doom ji ba di ko won lépp lu muy def te dina ko woon jëf yu ëpp kéemaan yi ngir ngeen gën a waaru maanaam ni baay bi di dekkale ñu dee ñi di leen jox dund gi noonu la doom ji di joxe dund gi ñi mu ko bëgg a jox baay bi du àtte kenn àtte bi yépp jox na ko doom ji ngir ñépp di teral doom ji ni ñuy terale baay bi ku teralul doom ji teraloo baay bi ko yónni ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ci àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jamono dina ñëw te agsi na ba noppi mooy jamono ji ñuy dee ñi di dégg baatu doomu yàlla ji te ku ko dégg di nga dund ndaxte ni baay bi amee dund gi moom ci boppam noonu it la ko maye doom ji mu am ko ci boppam jox na doom ji itam sañ-sañu àtte ndaxte mooy doomu nit ki bu leen ci dara jaaxal ndaxte jamono ngi ñëw ju néew yépp yi nekk ci seen bàmmeel di dégg baatam tey génn ñi daan def lu baax dinañu dekki dund ba faaw waaye ñi daan def lu bon dinañu dekki ñu daan leen mënuma def dara man ci sama bopp ni ma baay bi di digale rekk lay àtte te sama àtte bu jub la ndaxte defuma sama bëgg-bëgg ci waawi ki ma yónni dong laay aw su ma seddalee sama bopp sama wax du am maanaa waaye keneen moo may seedeel te biir na ma ni la muy wax ci man dëgg la yéen yónnee ngeen ay ndaw ci Yaxya te seede na dëgg gi man ci sama bopp soxlawu ma seedees nit waaye nag damay wax loolu rekk ngir ngeen mucc Yaxya meloon na ni làmp buy tàkk tey leeral te nangu ngeen a bànneexu ab diir ci leeram waaye yor naa ci man seede su gën a màgg si ma Yaxya di seedeel maa ngi def jëf yi ma baay bi sant jëf yooyu may def nag ñooy seede ne baay bi moo ma yónni te baay bi ma yónni moom itam seede na ma musu leen a dégg baatam te musu leen a gis xar kanamam te kàddoom saxul ci yéen ndaxte gëmu leen ki mu yónni yéen a ngi gëstu mbind yi ndax da ngeen cee yaakaare dund gudul jeex mbind yooyu nag far ci sama mbir la ñuy wax te bëgguleen a ci man ngir am dund wutuma ma yu jóge ci nit waaye yéen xam naa leen leer na ma ne amu leen ci seen xol benn mbëggeel ci yàlla man ñëw naa ci sama turu baay te nanguwu leen ma waaye bu keneen dikkee ci turu boppam ngeen nangu ko bëgg ngeen ku leen di tagg te wutu leen ngërëm lu jóge ci jenn yàlla rekk ji am kon nan ngeen mën a gëmee bu leen xalaat ne maa leen di jiiñ dara ci sama mu baay Musaa mi ngeen yaakaar moo leen di booleeg moom bu ngeen gëmoon Musaa di ngeen ma gëm man itam ndaxte seedeel na ma waaye su fekkee ne gëmuleen li Musaa bind kon nu ngeen mën a gëmee samay wax ginnaaw loolu yeesu dafa jàll dexu galile maanaam dexu tiberiyaad ah, mbooloo mu bari topp ci moom ndaxte gisoon nañu firnde yooyu mu wone ba mu wéralee jarag ya yeesu daldi yéeg fekk na boobu bésu jéggi ba di màggalu yawut ya jub si bi xoolee gis mbooloo mu réy di ñëw ci moom mu ne Filip ku nuy jële mburu mu nu leen mën a dundale bi muy wax loolu it te doon seetlu Philippe ndaxte xamoon na booba li mu nar a def Philippe ne ko peyug juróom ñetti weer sax bu ñu ko amoon du leen mën a doy ci mburu ba kenn ku nekk ci ñoom am ci dog wu ndaw keneen ca taalibe ya di André mi bokk ak Simon Pierre ndey ak baay ne ko am na fii ci mbooloo mi ab xale bu yor juróomi mburu ak ñaari jën waaye loolu lu muy jëriñ mbooloo mu toll nii yéesu daldi ne taalibe ya na ñépp toog fekk ñax mu bari amoon ca barab ba noonu góor ñépp àgg suuf war nañoo mat juróomi junni yéesu daldi jël mburu ya gërëm yàlla ba noppi séddale ko ña fa toogoon and distributed to the people who were sitting there. itam jën ba ñu doyal sëkk ñu lekkee ba rek yeesu ne taalibe yi dajale leen desitu mburu mi ba dara du ci réer ñu dajale ko daal di fukki pañe ak ñaar ak desitu juróomi mburu yi ñu doon lekk bi nit ñi gisee firnde jooju yeesu wone ñu ne dëgg-dëgg kii moo yonent yu war a ñëw ci àddina Yeesu gis ne dañu ko nar a jël si fal ko buur mu bàyyi leen fa dellu moom rekk ca tund wa bi timis jotee taalibeem ya wàcc ca tefes dugg ci gaal di jàll dex bi jëm dëkku kaparnawum booba guddi woon na te yeesu agseegul ci ñoom dex gi yëngu na lool ndaxte da doon ngelaw ak doole joowee lu wara a tolloog juróom benn kilomètre ñu seen yeesu muy dox ci kaw dex gi jëm ci ñoom ñu daal di tiit waaye yeesu ne leen man la bu leen noonu ñu nangu ko dugal ca gaal ga gaal ga daldi teer ca saasa ca ñu bëggoon a wàcc ca ëllëg sa mbooloo ma des ca geneen wàllu dex ga gis ne genn gaal ga fa nekkoon rekk dem na xam nañu ne yeesu bokk ko woon ak taalibe ya ndaxte ñoom rekk a àndoon waaye yeneen gaal yu jóge dëkku tiberiyaat ñëw teer ca wetu fa ñu lekke woon mburu ma gannaaw ba boroom ba sante yàlla ba noppi bi mbooloo ma gisee ne yeesu walla taalibe ya kenn nekkatu fa ñu dugg ca gaal yooyu dem seeti ko kaparnawum bi ñu fekkee yéesu ca geneen wàllu dex ga ñu ne ko kilifa gi kañ nga fi ñëw yeesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax firnde yi ngeen gis taxul ngeen may seet yéen a ngi may wër ndax mburu mi ngeen lekk ba suur bu leen liggéeyal ñam wu yàqu li gën mooy ñam mu sax abadan tey joxe dund gu jeex ñam woowule doomu nit ki dina leen ko jox ndaxte moom la yàlla baay bi tànn mu nekk ndawam noonu ñu laaj ko ne lu ñu war a liggéey ngir matal jëf yi neex yàlla Yeesu tontu leen ne jëf yi neex yàlla moo di gëm ki mu yónni ñu ne ko ban firnde nga nu a woon ngir nu gëm la ban liggéey nga nar a def suñuy maam dunde nañu mànn ca màndiŋ ma ndaxte mbind mi nee na jox na leen ñu lekk ñam wu wàcce ca asamaan yéesu waxaat ne ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax du Musaa moo leen jox ñam woowu wàcce ca asamaan sama baay ci boppam moo leen di jox ñam wu wóor wi wàcce ci asamaan ndaxte ñam wi yàlla di joxe mooy ñam wi wàcce ci asamaan tey jox àddina si dund bi ñu ne ko nag sang bi kon deenu faral di jox ci ñam woowee Yeesu tontu leen ne man maay ñam wi joxe dund gi ku ñëw ci man doo xiif mukk te ku ma gëm doo mar waaye wax naa leen ko ba noppi gis ngeen ma te taxul ngeen gëm képp ku ma baay bi jox dina ñëw ci man te duma dàq mukk ki may fekk si ndaxte wàccewuma ci asamaan ngir def sama bëgg-bëgg waaye damay matal bëgg-bëggu ki ma yónni lii mooy bëgg bëgg ki ma yónni bu ma ñàkk kenn ci ñi mu ma may te dafa bëgg it ma dekkal leen keroog bés bu mu ba ndaxte lii mooy bëgg-bëggu baay bi képp ku gis doom ji te gëm ko am dund gu dul jeex te bés bu mujj ba dinaa ko dekkal yawut ya tàmbali di ñu yéesu yeesu ndaxte dafa ne may ñam yi wàcc ci asamaan ñu naan ndax kii du yeesu doomu yusufa xam nañu ndeyam ak baayam kon nag lu tax léegi mu naan mi ngi jóge asamaan yeesu ne leen bàyyi leen seen ñurumtu bi kenn mënula ñëw ci man te baay bi ma yónni xiirtalu la ci te man dinaa la dekkal keroog bés bu mujj ba kàddu gi yàlla dina leen jàngal ñoom ñépp kon nag ku déglu te nangu waxi baay bi dina ñëw ci man tekkiwul ne kenn mas naa gis baay bi ki jóge ci yàlla doo nga ko gis ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku gëm am nga dund gu jeex maay ñam wi joxe dund gi seeni maam lekk nañu mànn ca màndiŋ ma teewul dee nañu waaye ñam wi wàcc ci asamaan ku ko lekk doo dee man maay ñam wi dund te wàcc ci asamaan ku lekk ci ñam wii dinga dund ba faw te ñam wi may joxe ji sama yaram la dama koy joxe ngir àddina mën a dund noonu yawut ya werante werante bu tàng ci seen biir naan naka lanu waa ji mën a joxe yaramam ngir ñu lekk ko yeesu ne leen dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax bu ngeen lekkul yaramu doomu nit ki te naanu leen deretam bu ngeen am dund gi ci yéen ku lekk sama yaram te naan sama deret am nga dund gu dul jeex te dinaa la dekkal keroog bés bu mujj ba ndaxte sama yaram mooy ñam wu wóor wi te sama deret mooy naan gu wóor gi kiy lekk sama yaram tey naan sama deret dina sax ci man ma dëkk ci moom baay bi ma yónni mu ngi dund te maa ngi dund jaarale ko ci moom noonu itam ku may lekk dina dund jaarale ko ci man kon nag ñam wi wàcce ci asamaan a ngi noonu bokkul ak ñam wa seeni maam lekkoon te faatu ku lekk ñam wi may wax dinga dund ba faaw baat yooyu la Yeesu wax bi mu doon jàngale ca jàngu ba ca Kaparnayom bi ñu dégloo Yeesu ba noppi taalibeem yu bari nee nañu jàngale mii de jafe na kan moo ko mën a déglu yeesu gis ne taalibeem yaa ngi doon ñurumtoo loolu mu ne leen ndax li ma waxta leen a jaaxal lan mooy am nag bu fekkee ne gis ngeen doomu nit ki dellu yéeg fa mu jëkkoon a nekk xelu yàlla mi moo joxe dund gi ñam wi jariñul dara kàddu yi ma leen wax ci xelum yàlla la ñu jóge ñoo joxe dund gi waaye am na ci seen biir ñu ko gëmul ndaxte yeesu xamoon na ca njaalbeen ga ñan ñoo ko waroon a gëmadi ak kan moo ko waroon a wor mu dolli ca it ne looloo tax man ni kenn mënula ñëw ci man te baay bi mayu la nga agsi ci loolu taalibeem yu bari dëpp bañatee ànd ak moom Yeesu daldi wax ak fukki taalibe yi ak ñaar ne leen mbaa bëgguleen a dem yéen itam Simon Pierre ne ko borom bi ci kan lañuy dem yaa kàddu yi joxe dund gu dul jeex léegi nun gëm nañu te xam nañu ne yaa di aji sell ji jóge ci yàlla Yeesu daldi tontu ne leen xanaa duma leen tànn yéen fukk yi ak ñaar moo na am na ci yéen koo xam ni seytaane la yuda mi doomu simon iskariyo la doon wax ndeke yuda li muy bokk lépp ci fukki taalibe yi ak ñaar moo ko naroon a wor ginnaaw loolu yéesu doon na wër diiwaanu galile bëggul woon a dem diiwaanu yude ndaxte yawut yi dañu ko doon wuta rey fekk na bisu xewu yawut ya ñu koy wax màggalu mbaar ya mu ngi doon jub si noonu rakk yeesu yu góor ya ne ko jóge fi te dem diiwaanu yude ngir say taalibe gis ñoom itam jaloore yi ngay def ku bëgg a siiw doo nëbb say jëf boo demee bay wone jaloore yu mel nii fexeel ba ñépp gis la rakkam yi dañ doon wax loolu ndaxte ñoom itam gëmuñu ko woon yeesu ne leen sama waxtu jotagul ci yéen nag waxtu yépp a baax àddina du leen bañ waaye bañ na ma man ndaxte maa wax ni seeni jëf baaxul yéen nag dem leen màggal ga demaguma màggal googu ndaxte sama waxtu jotagul bu leen waxee loolu ba noppi moom mu des Galile bi rakkam ya demee ca màggal ga yeesu itam soog a dem te kenn yëgu ko siiwalul demam fekk yawut yaa ngi ko doon seet ca màggal ga te naan ana waa ji ca biir mbooloo ma ñu ngi doon déyante di wax ci ay mbiram ñii naan nit ku baax la ñee naan déedéet day nax nit ñi waaye kenn ñimewu ko tudd ca kaw ndaxte dañu ragaloon yawut ya bi ñu demee ba ca diggu màggal ga yeesu dem di jàngale ca kër yàlla ga yawute nag jaaxle daldi ne nu waa ji def ba xam lii lépp moom mi jàngul Yeesu daldi leen tontu ne li may jàngale jógewul ci man waaye ci ki ma yónni la jóge ku fas yéene wéy ci bëgg-bëggu yàlla dina xam ndax sama jàngale ci yàlla la jóge walla ci sama coobare nit kiy wax ci coobareem nag day wut a màggal boppam waaye kiy wut màggal ki ko yónni dëgg rekk lay wax te jubadiwul fenn xanaa du Musaa moo leen jox ndigali yàlla yi waaye kenn ci yéen sàmm ko lu tax ngeen bëgg maa rey mbooloo ma ne ko xanaa dangaa may rab ku lay wut a rey Yeesu ne leen benn jaloore rekk laa def te yéen ñépp ngeen jaaxle li leen Musaa jox ndigalu xarafal gune yi jógewul kat ci musaa mi ngi tàmbalee ci seeni maami cosaan moo tax ba ngeen nangoo xarafal nit ci bésu noflaay bi bu ngeen mënee xarafal nit ci bésu noflaay bi ngir bañ a wàcc yoonu musaa lu tax nag ngeen mere ma ndax li ma ci wéral nitu lëmm bàyyi leen di àtte ci ni ngeen di gisee te di àtte dëgg am na ci waa Yerusalem ñu doon wax naan xanaa du nit kii lañuy wuta rey xool leen mi ngi waaraate ci biir nit ñi te kenn du ko wax dara ndax sunu kilifa yi dañoo xam ne mooy almasi bi waaye waa ji xam nañu fu mu jóge te saa almasi bi dee dikk kenn du xam fu mu bàyyi ko yéesu di jàngale ca kër yàlla ga daldi wax ca kaw ne ndax xam ngeen ma te xam fi ma jóge ñëwaluma sama bopp waaye ki ma yónni ku wóor la yéen xamuleen ko man xam naa ko ndaxte ci moom laa jóge te itam moo ma yónni noonu ñu koy wuta jàpp waaye kenn mënulu ko woon dara ndaxte waxtoom jotagul woon moona nag ñu bari ca mbooloo ma gëm nañu ko ñu nga naan ndax bis bu almasi bi dikkee ay firndeem dina ëpp yu nit ki pharisiens yi daldi dégg la mbooloo ma doon déyante ci mbirum yeesu sëriñ su mag sa ak pharisiens ya yebal ay alkaat yu daan wattu kër yàlla ga ngir ñu jàppi ko Yeesu wax ne dinaa nekk ak yéen fii ak ab diir soog a dem ci ki ma yónni dingeen ma seet waaye du ngeen ma gis te du ngeen mën a dem fa may nekk yawut ya di laajante ci seen biir naan fu muy dem fu nu ko dul fekk mbaadu dafa nar a dem ca yawut ya gàddaaye ca grek ya te jàngali grek ya lan la baat yi muy wax di tekki di ngeen ma seet waaye du ngeen ma gis ak du ngeen mën a dem fa may nekk bés ba mujj yoon ca màggal ga moo ci ëpp solo keroog Yeesu taxaw wax ca kaw ne ku mar na ñëw ci man ku gëm na naan ndaxte mbind mi nee na ndox mu bari muy dundale dina xellee ci dënnam booba li ko taxoon di wax mooy xelu yàlla mi ñi ko gëm naroon a jot fekk na joxe woon xelu yàlla mi ndaxte ndamu yéesu feeñagul woon bi ñu déggee wax jooja am ay nit ca mbooloo ma ñu naan dëgg-dëgg kii moo yonent bi war ñëw ñeneen naan mooy almasi bi ña ca desit ne waaye nan la almasi bi mën a jóge galile mbind mi wax na ni almasi bi ci xeetu daawuda lay wàcce te batleyem dëkku daawuda lay jóge noonu féewaloo daldi am ci biir mbooloo ma ndax yeesu am na ca ñoom ñu ko bëggoon a jàpp waaye kenn mënulu ko woon dara bi alkaati ya delloo sëriñ su mag sa ak pharisien ya laaj leen ne lu tax indiwu leen ko alkaati ye ne leen kenn mësula waxe ni nit kooku noonu pharisiens ya laaj leen mbaa naxuñu leen yéen itam ndax am na kenn ci sëriñ si walla ci pharisiens yi ku ko gëm déedéet waaye mbooloo mi xamuñu yoonu Musaa ñu alku lañu dem bokkoon na ca pharisiens ya fa nekkoon fekk moo seeti woon Yeesu lu jiitu mu ne leen ndax ci sunu yoon mën nañoo daan kenn te dégluwuñu ko mbaa ñu xam lu mu def ñu tontu ko ne baadu yow itam danga bokk ci diiwaanu Galile gëstul kon di nga xam ni benn yonent musula jóge loolu ku ci nekk dellu sa kër. But Jesus yeesu moom dem ca tundu oliw ya ci ëllëg sa ca fajar mu dellu ca kër yàlla ga mbooloo ma fa teewoon wër ko mu toog tàmbali di leen jàngal xutbakat ya ak pharisien yi indi jenn jigéen di ñu bettoon muy njaaloo ñu taxawal ko ci diggu mbooloo ma noonu ñu ne yeesu kilifa gi jigéen jii de dañ ko bett muy njaaloo ci ndigali yàlla yi jigéen ju njaaloo Musaa dafa santaane ñu sànni ko ay xeer ba mu dee yow nag lu ci see xalaat loolu nag dañu ko doon wax ngir seetlu ko ndaxte bëggoon nañoo tiiñal Yeesu Yeesu sëgg di bind ak baaraamam ci suuf bi laaj ya bare mu siggi ne leen ku mu def bàkkaar ci yéen na ko jëkka a xeer noonu mu sëggaat dellu di bind ci suuf bi ñu déggee loolu ñuy rocceeku kenn kenn mag ñi jiitu yeesu rek des fa jigéen ja taxaw ca mu daldi siggi ne ko jigéen ji ana ñi la doon jiiñ njaaloo ndax kenn tegu la tooñ mu ne ko kenn sang bi yéesu ne ko man ci sama wàll duma la daan demal waaye bul defati bàkkaar yeesu jubluwaat ca mbooloo ma ne leen man maay leeru àdduna si ku ma topp doo dox ci lëndëm waaye dinga am leeru dund pharisien ya ne ko yow yaay seedeel sa bopp kon li ngay wax du dëgg Yeesu tontu leen maa ngi seedeel sama bopp teewul li may wax di dëgg ndaxte xam naa fa ma bàyyi koo xam fa ma jëm waaye yéen xamuleen fa ma bàyyi koo ak fa ma jëm ci gis-gisu àddina ngeen di àtte man duma àtte kenn teewul nag su ma demee bay àtte bu jub lay doon ndaxte du man rekk ay àtte waaye baay bi ma yónni daf ci ànd ak man seen yoon dafa wax ne seedes ñaari nit a gën a wóor man maa ngi seedal sama bopp te baay bi ma yónni mi ngi may seedal itam ñu laaj ko ne kuy sa baay Yeesu tontu ne xamuleen ma xamuleen sama baay bu bi muy wax loolu yeesu nga doon jàngale ca kër yàlla ga ci wetu fa ñu daan denc asaka ya kenn mënu ko woon a jàpp ndaxte waxtoom jotagul yeesu dellu na leen maa ngi dem dingeen ma seet waaye seeni bàkkaar ngeen di deeyaale fa ma jëm du ngeen fa mën a dem yawut yay waxante naan nee na kat fa mu jëm duñu fa mën a dem mbaa du day xaru ji yeesu tontu ne yéen fii ngeen bawoo ci suuf waaye man ca kaw laa jóge àddina ngeen soqi ko waaye man bokkuma ci looloo tax ma ni ci seeni bàkkaar ngeen di dee bu ngeen gëmul ki ma nekk dingeen dee ci seeni bàkkaar ñu ne ko yaay kan mu ne leen li ma leen waxoon te njaalbeen ga li ma mën a wax ci yéen ba àtte leen bare na waaye ki ma yónni ku wóor la te li mu ma wax rekk laay jottali àddina xamuñu woon ni yàlla baay bee tax muy wax yeesu nag ne leen bu ngeen yëkkatee doomu nit ki di ngeen xam ni maay ki nekk di ngeen xam ne it du ma def dara man ci sama bopp li ma baay bi jàngal rekk laay wax te it ki ma yónnee ngi ànd ak man musuma bàyyi ma wéet ndaxte li ko neex rek laay def bi ñuy dégg yéesu di wax loolu ñu bari daldi koy gëm Yeesu ne yawut ya ko gëmoon bu ngeen saxee ci li ma wax nekk ngeen samay taalibe ci lu wóor te it di ngeen xam dëgg gi te dëgg gi dina leen goreel ñu tontu ko ne nun ci Ibrahima lañu soqi ko te mësunoon nekk jaamu kenn nan nga ñu mën a waxe ne dinañu leen goreel Yeesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax képp kuy bàkkaar jaamu bàkkaar la te jaam du bokk ci kër gi ba faaw waaye doom moom ci kër gi lay bokk ba faaw kon nag bu leen doom ji defee gor di ngeen doon ay gor tigi xam naa ni askanu Ibrahima ngeen waaye yéen a ngi may wut a rey ndaxte li may jàngale xejul ci yéen li ma sama baay woon laay wax waaye yéen leen seen baay di wax ngeen di def ñu tontu ko ne Ibrahima mooy suñu baay. Yeesu na leen bu ngeen dee waa kër Ibrahima di ngeen jëfe ni moom léegi nag yéen a ngi may wute rey man mi leen jottali dëgg gi ma jële ca yàlla Ibrahima deful lu ni mel li ngeen donne ci seen bàyyi rek ngeen di def ñu tontu ko ne nun de duñu doomi araam benn bàyyi rek lañu am moo yàlla yeesu ne leen bu yàlla doon seen baay di ngeen ma bëgg ndaxte ci moom laa jóge ñëw ci ndigalam ñëwaluma sama bopp waaye moo ma yónni lu tax déglu leen li ma leen wax li ko waral moo di mënu leen koo déglu seytaane mooy seen baay te bëgg-bëggam ngeen di bëgg di def boomkat la musa doon du taxaw mukk ci dëgg ndaxte dëgg nekkul ci moom buy fen dëppoo na ak jikkoom ndaxte fenkat la te ci moom la fen soqi ko waaye man damay wax dëgg moo tax gëmu leen ma kan ci yéen moo mën a seede ne bàkkaar naa su ma waxee dëgg nag lu tax du ngeen ma gëm ku nekk doomu yàlla dina déglu ay waxam waaye nekkuleen doomu yàlla looloo tax du ngeen déglu He who comes from God listens ne ko ndax danoo waxul dëgg bu nu nee nitu samari nga te danga am ay rab yeesu ne leen awma rab waaye sama baay laay teral te yéen dangeen may toroxal wutuma màggal sama bopp keneen a ma koy wutal te mooy àtte ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax kuy sàmm sama wax doo dee mukk ya wute ne ko léegi wóor nañu ne danga am ay rab Ibrahima faatu na yeneen yépp faatu yow nga naan kuy sàmm sama wax doo ñam dee sunu baay Ibrahima faatu na baatu dangaa defe ne yaa ko gën a màgg yeneen ci itam faatu nañu waaw loo teg sa bopp Yeesu ne leen su ma dee màggal sama bopp du am maanaa sama bàyyee may màggal moom mi ngeen naan mooy seen yàlla xamuleen ko nag man maa ko xam su ma ne woon xamuma ko ab fenkat lay doon ni yéen waaye xam naa ko te maa ngi sàmm waxam seen baay Ibrahima bég na bi mu yégee sama ngan bi mu ko gisee it bég na ci lool yëwut ya ne ko amaguloo juróom fukki at ba noppi naan gis nga Ibrahima yeesu ne leen ca dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax laata ñuy sàkk Ibrahima fekk na ma doon ki ñuy wax maay ki nekk noonu ñu for ay xeer bëgg koo sànni ngir rey ko waaye kër yàlla ga amoon na fu yeesu jaaroon gisoo waaju judduwaale gumba taalibeem ya laaj ko ne kilifa gi lu tax waa ji judduwaale gumba ndax bàkkaaram a ko waral walla bu waajuram yéesu tontu ne aajowul ci bàkkaaram walla ci bu waajuram waaye loolu dafa am ngir jëfi yàlla yi feeñ ci moom bëccëg lañu war a matal jëfi ki ma yónni guddi dina ñëwi goo xam ne kenn du ci mën a liggéey ci bi may ah, nekk àddina ah, may leeru àddina bi yeesu waxee loolu ba noppi dafa daldi tifli jaxase lor wa ak ban tey ko ci bëti gumba ga ne ko demal sëlmu ci bëti silowe silowe mi ngi tekki yónni nañu ko bëgg a daldi dem sëlmu ji dellusi di gis dëkkandoom yi ak ñi ko xame woon bu jëkk ci yalwaan naan xanaa du kii moo daan toog di yalwaan ñii naan moom la de ñee naan du moom dañoo nuroo rek mu daldi leen ne man la de ñu ne ko lu ubbi say bët mu tontu ne ku ñuy wax yeesu moo tooyal ban tey ko ci samay bët ne ma demal sëlmu ci bëtu silowe ma dem nag sëlmu ji daldi di gis ñu ne ko ana waa ji mu ne leen xamuma fu mu nekk noonu ñu daldi indil pharisiens yi nit ka gumba woon ndekete yeesu bés ba mu tooyale ban ubbi bëti gumba ga bésu noflaay la woon looloo tax pharisiens ya di waa ji fu mu jaar bay gis léegi mu ne leen dafa tey ban ci samay bët mësal mujj ba fii ma nekk maa ngi gis ci noonu am ca pharisiens yi ñu naan ki def lii mënula jóge ca yàlla ndax ndaxte toppul ndigalu bésu noflaay bi ñeneen ñi it di wax ne nan la borom bàkkaar mën a wone yii firnde noonu ñu daal di féewaloo ci seen biir pharisiens yi laajaat ko gumba woon ne ko yow loo wax ci moom yow de la ubbil say bët mu ne leen yonent la yawut ya mënuñoo woon a nangu ne nit ka dafa gumba woon tey gis léegi ñu daldi woolu ji ay waajuram laaj leen ne ndax kii mooy seen doom ji ngeen ni gumba judduwaale la kon fu mu jaar bay gis léegi waajur ya tontu ne xam nañu ne daal suñu doom la te dafa judduwaale gumba waaye ni mu def léegi bay gis xamuñu ko te xamuñu it ki ko ubbil ay bëtam laaj leen ko magum jëmm la te mën naa tontul boppam ragal yawut ya nag moo taxoon waajari nit ka waxe noonu ndaxte yawut ya dañoo mànkoo woon ne képp ku seede ne yéesu mooy almasi bi ñu dàq la ca jàngu ba looloo tax waajur ya ne laaj leen ko magum jëmm la farisiyen yi dellu woowaat ku gumba woon ne ko waxal sa digganteeg yàlla xam na nañu ne waa joojee boroom bàkkaar la mu tontu ne xamuma ndax boroom bàkkaar la am déet li ma xam daal mooy gumba woon naa te léegi maa ngi gis ñu laaj ko ne lu mu la def nu mu la ubbile say bët mu ne leen wax naa leen ko ba noppi waaye dégluwu leen ma lu ngeen bëgg ci ma di ko wax di waxaat xanaa da ngeen a bëgg a nekk yéen itam ay taalibeem ci kaw loolu ñu daldi ko saaga ne ko yow yaay taalibeem nun taalibey Musaa lañu xam nañu ne yàlla wax na ak Musaa waaye kii xamuñu sax fu mu jóge waaje ne leen loolu de doy na waar xamuleen fu mu jóge te moo ubbi samay bët xam nañu ne yàlla du déglu boroom bàkkaar waaye nag dina déglu ki koy ragal tey def coobareem bi àddina sosoo ba tey mësuñoo dégg nit ku ubbi bëti gumbaak judduwaale kon nit kookee nag bu jógewul woon ci yàlla du mën a def dara ñu tontu ko ne yow ci biir bàkkaar nga juddoo ba noppi di ñu jàngal noonu ñu dàq ko ci jàngu ba yéesu daal di yëg ne dàq nañu nit ka bi mu dajeek moom mu ne ko ndax gëm nga doomu nit ki waaja ne ko wax ma mooy kan sang bi ba ma mën koo gëm yeesu ne ko gis nga ko ba noppi te mooy kiy wax ak yow waaja ne boroom bi gëm naa la noonu mu jaamu yeesu yeesu ne ko atee ma tax a ñëw àddina ngir ñiy gumba gis ñiy gis gumba bi pharisien ya nekkoon ak moom déggee loolu ñu ne ko xanaa kon ñu nit dañoo gumba Yeesu tontu leen ne bu ngeen gumba woon du ngeen am bàkkaar waaye fii ak yéen ngi naan nu ngi gis ci bàkkaar ngeen di dëkk ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku jaar feneen fu dul ci buntu gétt gi kooku sàcc la saay-saay la waaye ki jaar ci bunt bi mooy sàmm xar yi wattukat bi dina ko ubbil bunt bi xar yi dégg baatam xar yi mu moom nag bu ci nekk dina la woo ci sa tur ba noppi nga topp ko ci biti sàmm bi bu génnee yi mu moom yépp dina leen jiitu ñu topp ko ndaxte xam nañu baatam waaye du ñu topp jàmbur dañu koy daw ndaxte miinuñu baatam yeesu misaalal na leen loolu waaye xamuñu li mu leen doon wax noonu yeesu newaat ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax man maay buntu gétt gi ñi ma fi jiitu ñépp ay sàcc lañu ak ay saay-saay waaye xar yi dégluwuñu leen man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc dinga mën a dugg ko génn dinga it mbooy goo mën a fore sàcc bi moom day sàcc si rekk di rey ak di yàq man dama ñëw ngir nit ñi am dund ba nekk ci naataange man maay sàmm bu baax bi sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram ki du sàmm bi tey liggéeyal xaalis rekk waaye moomul xar yi bu seenee bukki day daw bàyyi fa xar ya bu ko defee bukki ba dal ca coggal ja jàpp ca tasaare ya ca des boobu surga day daw ndaxte xaalis rekk lay liggéeyal faalewul xar ya man maay sàmm bu baax bi ni ma xame baay bi te baay bi xame ma ni noonu laa xame samay xar te ñoom it ni lañu ma xame te it kat dinaa joxe sama bakkat ngir xar yi am naa yeneen xar yu bokkul ci gétt gi war naa leen a indi ñoom it te dinañu déglu sama baat benn coggalay am ak benn sàmm baay bi bëgg na ma ndaxte damay joxe sama bakkan ngir jëlaat ko kenn du ko jële ci man maa koy joxe ci sama coobarey bopp am naa it sañ joxe ko te am naa sañ-sañu jëlaat ko loolu la ma sama baay sant kàddu yooyee ñoo féewalawaat yawut yi ñu bari ci ñoom naan dafa am ay rab dafa dof lu tax ngeen koy déglu waaye ñeneen naan nit ku am ay rab du waxe nii ndax rab mën naa ubbi bëti gumba am bés ñu doon màggal ca Yerusalem bés ba ñu sele la woon kër yàlla ga ci jamonoy sedd la woon yéesu nga woon ca kër yàlla ga di doxantu ci biir werandaa bu Suleymaan yawut ya wër ko ne ko kañ nga ñuy oh, dund ci kumpa boo dee almasi bi wax ko mu leer yéesu tontu leen ne wax naa leen ko ba noppi waaye gëmu leen jëf yi may jëf ci sama tuuru baay ñoo may seede waaye gëmu leen ndaxte bokku leen ci samay xar samay xar dinañu dégg sama baat xam naa leen te ñu ngi may topp dama leen di jox dund gudul jeex du ñu sànku mukk te kenn du leen jële ci sama loxo baay bi ma leen jox moo gën a màgg lépp te kenn mënula jële dara ci loxo baay bi man ak baay bi benn lañu yawut ya daldi fooraat ay xeer bëgg ko sànni ngir rey ko noonu yeesu ne leen def naa ci seen kanam jëf yu baax yu bari ci ndigalu baay bi ban ci jëf yooyu moo tax ba ngeen bëgg ma sànni ay doj yawut ya ne ko jëf lu baax taxul nu bëgg laa sànni ay xeer waaye da ngay suufee yàlla yow nit rekk nga ba noppi di def sa bopp yàlla Yeesu tontu ne bind nañu ci seen téereeb yoon ne yàlla nee na ay yàlla ngeen yàlla wooye na ay yàlla ñi mu yónnee kàddoom te xam na ni kenn mënula randal waxi yàlla kon nu ngeen mën a waxe ne damay suufee turu yàlla ndax li ma ni doomam laa man mi yàlla tànn yónni ma ci àddina su ma deful sama jëfi baay bu leen ma gëm waaye su ma ko defee bu ngeen ma gëmul sax gëm leen boog samay jëf ngir ngeen xam te nangu ne maa ngi nekk ci baay bi te baay bi nekk na ci man ñu di ko wut a jàppaat waaye mu bàyyi leen fa dem yéesu génn jàllaat dexu yurdaan toog fa yaxya daan sóobe ci ndox bu jëkk nit ñu bari ñëw ci moom te naan yaxya deful benn kéemaan waaye li mu wax ci kii yépp dëgg la noonu ñu bari gëm ko amoon na benn waay bu woppoon ñu koy wax lasaar ma nga dëkkoon betani moom ak maryaama ak màrt mi mu bokkaloon ndey ak baay maryaama mooy jigéen ji sotti ji laj koleen ci tànki borom bi fompe ko kawaram moom la càmmoñam lasaar woppoon ñaari jigéeni lasaar yónnee ca yeesu ne ko borom bi sa xarit wopp na bi yeesu déggee xabaar boobu mu ne lasaar de woppam jooju du ko mujje day wone ndamu yàlla tey màggal doomu yàlla ji yeesu soppoon na màrt ak maryaama ak lasaar bi mu yëgee nag ne lasaar wopp na mu toogaat yeneen ñaari fan ca barab ba mu nekkoon ginnaaw loolu mu ne taalibe ya nanu dellu yudde taalibe ya tontu ko ne kilifa gi yàggul dara waa yudde doon nañu la wuta rey ak i xeer nga di fa dellu yeesu ne leen xanaa du bëccëg fukki wax toog ñaar la kuy dox bëccëg du fa kastalu ndaxte day gis leeru àddina si waaye kuy dox guddi di la fakkastalu ndaxte leer gi nekkul ci moom Yeesu wax loolu teg ca ne sunu xarit Lasaar nelaw na waaye maa ngi dem yee ko taalibe ya tontu ne borom bi bu nelawee kay kon dina wér yéesu dafa bëggoon a wax ne Lasaar dee na waaye taalibe yi dañoo xalaatoon ne mbiri nelaw rekk lay wax ci kaw loolu yéesu wax ci lu leer ne Lasaar dee na bég naa ngir yéen ndax li ma fa nekkul ngir seen ngëm gën a dëgër waaye nanu ko seeti noonu Tomaa turam di tekki seex bi daldi ne yeneen taalibe ya nanu dem ñu tam deeloo ak moom bi Yeesu agsee mu fekk ne bi ñu dencee Lasaar ak léegi mat na ñeenti fan Betani ma nga woon ca wetu Yerusalem diggante bi matul woon sax ñetti kilomètre yawut yu bari ñëwoon nañu kër Marta ak Mariama ngir defal leen ci seen deewu càmmeñ bi Yeesu ñëwee Marta yëg ko dem di dajeek moom fekk booba Mariama nga toogoon ca kër ga Marta ne borom bi boo fi nekkoon de sama càmmeñ li du dee waaye xam naa ni fii nu toll sax loo ñaan yàlla mu may la ko Yeesu ne ko sa càmmeñ dina dekki Mars tontu ko ne xam naa ni dina jóg bésu ndekkite la keroog bés bu mujj ba Yeesu ne ko man maay ndekkite li maay dund gi ku ma gëm boo deeyee it dinga dund raxte dolli kuy dund te gëm ma doo dee mukk ndax gëm nga loolu mu tontu ko ne gëm naa ne yaay doomu yàlla ji war àddina bi Màrt waxee loolu mu daldi dem wooyu Maryaama ne ko ci kilifa gaa ngi fi mi ngi lay laaj bi Maryaama déggee loolu mu daldi jóg gaawantu dem ci Yeesu te fekk duggagul woon ca dëkk ba waaye ma nga woon ba tey ca barab ba mu daje woon ak Màrt noonu yawut ya nekkoon ca kër ga di defal Maryaama gis ko mu ne bëreet génn ñu daal di koy topp defe ne day jooyi ca bàmmeel ba bi Maryaama agsee nag ca Yeesu ba gis ko mu daan ci tànkam ne ko borom bi boo fi nekkoon sama càmmeñ du dee yeesu gis ne mi ngi jooy te yawut yi ànd ak moom itam ñu ngi jooy mu daldi jàq am naqar wu rëy mu ne leen fu ngeen ko denc. ñu tontu ko ne. kaay gi sang bi. Yeesu jooy. noonu nag yawut ya ne gis ngeen ni mu ko bëgge woon waaye am na ca ñoom ñu doon wax naan moom mi ubbi bëti gumba gi ndax mënul woon fexe ba lasaar du dee Yeesu dellu am naqar wu rëy daal dem ca bàmmeel ba pax la mu ñu yett ci doj ubbe ko xeer Yeesu ne dindi leen xeer wi Màrt jigéenu ku dee ki ne ko borom bi dina xasaw xunn fii mu nekk ndaxte am na ci bàmmeel bi ñeenti fan Yeesu ne ko ndax waxuma la ni boo gëmee di nga gis ndamu yàlla daal xool ci kaw ne jàkk asamaan ñaan yàlla ne bàyyi sant naa la ci li nga ma déglu ba noppi xam naa ni doo jóg ci di ma déglu waaye dama koy wax ngir nit ñi ma wër gëm ne yaa ma yónni bi mu waxee loolu Yeesu woote ak baat bu dëgër ne Lasaar ñëwal ci biti néew bi daal génn ñu gis càngaay li ñu takke woon tànk yi ak loxo yi ak kaala gi ñu muure woon kanam gi yeesu ne leen tekki leen ko bàyyi ko mu dem yawut yu bari ca ñu ñëwoon kër Maryaama te gis li Yeesu defoon daal di koy gëm waaye amoon na it ñu demoon ci pharisiens ya nettali leen la Yeesu defoon pharisiens ya ak sëriñ su mag sa woo kuréelu àttekat ya ne nit ki kat yi muy defa ngi bëgg a bari lu ñuy def nag ndaxte suñu ko bàyyee mu jàppoo nii ñépp dinañu ko gëm te kilifaay Rom yi dinañu ñëw daaneel suñu kër yàlla gi tas suñu réew amoon na ca ñoom ku ñuy wax Kayif te mu nekkoon sëriñ bu mag ba at mooma mu ne leen xamuleen ci mbir mi dara xanaa xamuleen ni kenn nit rekk dee ngir ñépp mooy li gën ci yéen bu ko defee réew mi du tas loolu kay waxu ko woon ci sagoom waaye li mu nekkoon sëriñ bu mag ba at mooma moo tax yàlla xiirtal ko mu ne yéesu dina dee ngir réew du woon rekk ngir xeet woowu waaye ngir itam doomu yàlla yi tasaaroo yépp dajaloo nekk benn keroog la njiitu yawut ya dogu ci rey yeesu taxoon na ba noonu mu dem ca gox bu jege Manding te dëkku Efraïm foofa nag la toog ak ay taalibe bésub jéggi ba di màggalu yawut ya mi ngi doon jub si ba ñu bari ca waa àll ba di dem Yerusalem balaa booba ngir sangu ji set ñu ngi doon wut Yeesu tey waxante ca kër yàlla ga naan lu ngeen ci xam ndax dina ñëw ci màggal gi walla déet sëriñ su mag sa ak pharisien ya daal di santaane ne bu kenn xamee fu yeesu nekk mu yëgle ko ngir ñu koo jàpp. juróom benni fan laata màggalu bésu jéggi ba. yeesu dem na betani dëkku lasaar mi mu dekkal. foofa ñu defaral ko fa reer màrt moo ko doon séddale te Lazare bokkoon na ca gan ya noonu Mariama daldi jël liibaru laj koloñ ju raxul ju ñuy wax naar tey jar lu bare bari mu sotti ko ci tànk Yeesu ba noppi fompe ko ak kaarawam xeetu laaj ko gi gelli ci kër gi yépp kenn ca taalibe yeesu ya muy yuda iskariyo mi ko nara woon daldi ne lu tax jaayu ñu laaj ko leen ji peyu atum lëmm jox ko miskin yi waaye bi muy wax loolu xalaatul woon miskin yi ndaxte sàcc la woon moo yoroon boyetu xaalis bi te daan ci sàkk waaye yeesu ne ko bàyyi ko jekkoon na mu denc ko ngir bés bu ñu may suul miskin yaa ngi ak yéen bés bu nekk waaye du ngeen ma gis ba faaw bi ñu yégee ne yeesoo nga fa mbooloom yawut mu bari daldi dem betani yeesu rekk yóbbuwu leen fa woon waaye dañoo bëggoon a gisaale lasaar mi yeesu dekkaloon sëriñ su mag sa dogu ci ne dañuy reyaale lasaar ndaxte moo waral yawut yu bari dëddu leen gëm yeesu ca ëllëg sa mbooloo mu bari ma ñëwoon te màggalu bésu jéggi ba yëg ne yeesoo ngi jëm si yerusalem ñu daal di jël ceri garab gën di ko teeru ñuy xaaj naan Hosanna mi ñëw ci turu borom bi ku barkeel nga na yàlla barkeel buuru Israël Yeesu wut ci mbur war ko ndaxte mbind mi nee na bu leen ragal waa Siyon gis ngeen seen buur a ngi ñëw war mbaam mu ndaw yooyu yépp taalibe ya xamuñu woon ca saasa lu mu teg waaye ginnaaw bi ndamu yeesu feeñee ñu fàttali ko ne mbind mi yëgle woon na loolu ci moom te amal nañu nekkoon ak yeesu ñépp bi muy wooyee lasaar mu génn ca bàmmeel ba mu dekkal ko demoon nañu nettali la gis looloo tax mbooloo ma teeru ko ndaxte yëgoon nañu firnde boobu pharisiens yi nag di waxante naan gis ngeen mënu leen ci dara ñépp a ngi koy topp ca amoon na ci ay grec yu bokk ca ña ñëwoon Yerusalem ngir jaamu yàlla diirub màggal ga ñëw nañu ci Philippe mi dëkk Betsayda ci diiwaanu Galilée ne ko sang bi dañoo bëggoon a gis Yeesu Philippe dem wax ko André ñu ànd waxi ko Yeesu mu tontu leen ne waxtu wi ñu war a feeñale ndamu doomi nit ki jot na ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax fii ak pepp dugub ji wadd ci suuf jaarul ci dee du mën a weesu li mu doon pepp dong waaye bu deeyee dina jur pepp yu bari ku bëgg bakkanam dina ko ñàkk waaye ku ko bañ ci àddina si dina ko denc ngir dund gu jeex gi ku bëgg a doon sama surga na ma topp bu ko defee fu ma nekk fa lay nekk moom itam ku may liggéeyal sama baay dina ko teral léegi nag dama jàq lu may war a wax mbaatu dama naan baay musal ma ci li war xew waxtu wii ñëw déedéet ñëw naa sax ngir jaar ci waxtu woowu baay màggalal sa tur noonu ñu dégg baat bu jóge asamaan naan màggal naa ko ba noppi te dinaa ko màggalaat mbooloo ma fa teewoon te dégg baat ba daldi ne dëgg la woon ñeneen naan malaaka doon wax ak moom waaye yées na leen taxuma baat boobu jolli waaye yéen a tax atteeb àddina si jot na léegi ñu daq malaaka mu bon mi jiite àddina si te man bu ñu ma yëkkatee ma tiim suuf naa wootal nit ñëpp ci man baat yooyu la doon misaale ni mu war faatoo mbooloo ma tontu ko ne jàng nañu ci suñu téere yoon ne almasi bi dina sax ba faw kon yow nan nga mën a waxe ne doomu nit ki dina yëkkatiku kuy doomu nit kooku yeesu leen leer gi dootul yàgg ak yéen dox leen ci bi ngeen dee am leer gi ngir lëndëm ban leen a bett ndaxte kuy dox ci lëndëm doo xam foo jëm kon ci bi ngeen dee am leer gi gëm leen ko ngir ngeen doon doomi leer bi mu waxee loolu ba noppi Yeesu dafa nëbbutu ji leen yi mu leen woon yépp taxul ñu gëm ko ngir li yonentu yàlla Esayi waxoon am borom bi ana ku gëm suñu waare kan la borom bi woon dooleem mënuñu woon a gëm ndaxte Esayi dafa waxaat ne yàlla dafa gumbaal seeni bët def ba ñu dëgër bopp ngir seeni bët bañ a gis seen xel bañ a xam ñu bañ a wàññeeku ci man ngir ma wëral leen Isaayi dafa wax loolu ndaxte gisoon na ndamu Yeesu te mu ngi doon wax ci ay mbiram fekk na ci biir njiit yi sax ñu bari gëmoon nañu Yeesu waaye pharisien yee tax fesaaluñu ko ndaxte dañoo ragaloon ñu dàq leen ca jàngu ba ngërëmu nit te leen gënaloon ngërëmu yàlla yéesu yégle ne ku ma gëm gëmuloo ma waaye gëm nga ki ma yónni ku ma gis gis nga ki ma yónni ni ak leer laa wàcc ci àddina ngir ku ma gëm du des ci lëndëm gi ku dégg samay wax te topp leen du man maa koy daan ndaxte wàccuma ngir daan àddina waaye dama ñëw ngir musal ko ku ma beddeeku te nanguwul samay wax dina fekk fii li koy daan sama jàngale koy daan keroog bés bu mujj ba ndaxte waxuma ci sama coobare waaye baay bi ma yónni ci boppam moo ma sant li ma war a wax ak li ma war a jàngale te xam naa ne li muy santaane day joxe dund gu dul jeex kon li ma wax dama koy wax li ma ko baay bi sante

fekk na boobu seytaane xéetal yuda doomi simon iskariyo ngir mu wori yeesu yeesu xamoon na ni yàlla joxoon na ko sañ-sañ ci lépp xam it ne ci yàlla la jóge te ca moom lay delluwaat mu daal di jóge ca reer ba summi mbubbam daal jël ab sarbet laxas ko ci ndiggam noonu mu sotti ndox ci ab këll daal di di raxas tànki taalibe ya di leen fomp ak sarbet ba mu bi mu agsee ba ci Simon Pierre kooku ne ko borom bi ndax yow danga nar raxas samay tànk Yeesu tontu ko ni xamoo fi mu nekk li may def waaye dinga ko xami Pierre ne ko déedéet du ma nangu mukk nga raxas samay tànk Yeesu ne ko su ma la raxasul doo bokk ak man dara Simon Pierre ne ko kon nag borom bi bul yem rekk ci tànk yi waaye raxasaaleel loxo yi ak bopp bi Yeesu ne ko ku sangu ba noppi soxlatu la raxas tuddul ay tànkam ndaxte seet na wecc yéen nag set ngeen waaye du ñépp fekk yeesu xamoon na ki ko nar a wor looloo tax mu ne setu leen yéen ñépp bi mu leen raxasalee seeni tànk ba noppi yéesu dafa solaat mbubbam dellu toogaat ne leen ndax xam ngeen li ma leen defal yéen ngi may wooye kilifa gi ak boroom bi te wax ngeen dëgg moom laa kon bu fekkee ne man mi boroom bi tey kilifa gi maa leen raxasal seeni tànk yéen itam war ngeen di raxasalante seeni tànk bàyyil naa leen fii royukaay ngir ngeen di jëf nii ma jëfeeg yéen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jaam gënula màgg sangam mbaa ndaw ki ko yónni ginnaaw xam ngeen loolu bu ngeen doxalee noonu di ngeen bég yéen ñépp taxu leen may wax xam naa ñi ma tànn waaye li mbind mi wax faw mu am di ñu naan ki lekk sama dugub weq na ma maa ngi leen koy wax ci teel balaa looloo ñëw ngir bu ñëwee ngeen gëm ni maay ki nekk ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku nangu kenn ci ñii ma yónni nangu nga ma man itam te ku ma nangu nangu nga ki ma yónni bi Yeesu waxee loolu ba noppi mu jàq biral ni ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen dina ma wor taalibe yi di xoolante te xamuñu kan lay wax ka bëggoon te mu bokkoon ca taalibe ya soonu woon kaw yeesu kooku la simon pierre liyaar ngir mu laaj yeesu ki ko taxoon di wax taalibe ba daldi wëlbatiku ca yeesu laaj ko ne boroom bi kooku kan la yeesu ne ko dinaa càpp dogu mburu ci ndab li ki ma koy jox kooku la noonu yéesu jël dogu mburu capp ko ca ndab la daldi koy jox yuda doomu simon iskariyo naka la yuda jël dog wa seytaane dugg ci moom yeesu ne ko gaawantul ci li ngay def amul kenn ci ña ku xam lu tax mu wax ko loolu waaye ginnaaw yuda moo yoroon boyetu xaalis bi am ñu xalaat ne yeesu dafa ko wax mu dem jëndi li war ci màggal gi walla mu ne ko mu dem sarax miskin yi yuda nag jël dogu mburuma daldi génn ca saa boobu guddi na bi Yuda génnee yéesu ne léegi nag ndamu doomi nit ki feeñ na te ndamu yàlla feeñ na itam ci moom te bu ma feeñalee ndamu yàlla yàlla itam ci teewaayam dina feeñal ndamu doomu nit ki te dina ko def léegi samay soppe sama nekk ak yéen dootul yàgg di ngeen may seet waaye maa ngi leen di wax léegi li ma waxoon yawut ya fa ma jëm du ngeen fa mën a dem maa ngi leen di jox ndigal lu bees bëggante leen na ngeen di bëggante ni ma leen bëggee ni ñuy xamee ne samay taalibe ngéen mooy ngeen bëggante Simon Pierre laaj ko ne borom bi foo jëm Yeesu ne ko fa ma jëm mënuloo ma faa topp léegi waaye dinga ma toppi ca kanam Pierre ne ko borom bi lu tax mënuma laa topp léegi attan naa joxe sama bakkan ngir yow yeesu ne ko attan ngaa joxe sa bakkan ngir man ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax balaa ginaar a sab di ma weddi ñetti yoon bu leen jàq gëm leen yàlla te gëm ma am na néeg yu bari ca sama kër baay bu dul woon noonu ma wax leen ko ndaxte maa ngi dem defar leen fa ngeen di dëkk te su ma leen defaralee barab boobu ba noppi dinaa dellu yu bale leen ba fu ma nekk ngeen nekk fa yéen itam te fa ma jëm xam ngeen yoon wi Tomaa ne ko borom bi xamuñu fa nga jëm kon nan lañuy mën a xame yoon wi Yeesu ne ko man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci baay bi te jaarul ci man ndegam xam ngeen ma dingeen xam itam sama baay lu weesu tey xam ngeen ko te gis ngeen ko Filip ne ko borom bi won nu baay bi loolu doy nanu Yeesu tontu ko ne ni ma yàgg ak te ba tey Filip xamuloo ma ku ma gis gis nga baay bi kon nag nan ngay mën a laaje naan won nu baay bi xamuloo ni maa ngi nekk ci baay bi te baay baa ngi ci man kàddu yi ma leen di wax jógewuñu ci man waaye baay bi nekk ci man mooy matal ay jëfam gëm leen li ma leen wax ne maa ngi ci baay bi te baay baa ngi ci man walla boog gëm leen ndax jëf yi ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax képp ku ma gëm dina def moom itam jëf yi may def dina def sax yu gën a màgg ndaxte maa ngi dem ci baay bi te it lu ngeen ñaan ci sama tur dinaa ko def ngir doom ji feeñal ndamu baay bi lu ngeen ñaan ci sama tur maa koy def bu ngeen ma bëggee di ngeen topp sama ndigal te dinaa ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalikat buy nekk ak yéen ba abadan kooku mooy xelu yàlla mi yor dëgg gi àddina du ko mën a nangu ndaxte gisu ko te xamu ko yéen xam ngeen ko ndaxte mi ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen duma leen bàyyi ngeen wéet dinaa dellusi ci yéen des na tuuti ci kanam àddina duma gisati waaye yéen di ngeen ma gis dinaa dund moo tax yéen itam di ngeen dund bu keroogee di ngeen xam nag ne nekk naa ci sama baay yéen it nekk ngeen ci man te maa ngi nekk ci yéen ki ma bëgg mooy ki nangu samay ndigal te di ko topp ku ma bëgg baay bi bëgg la te man dinaa la bëgg di la feeñu yuda du yuda iskariyode beneen la woon ne ko borom bi lu xew ba nga nar noo feeñu nun rek te doo feeñu àddina si yeesu tontu ko ne ku ma bëgg dina sàmm sama kàddu sama baay dina ko bëgg te nun dinañu ñëw ci moom te dëkk ci moom ku ma bëggul doo sàmm sama kàddu li may wax nag jógewul ci man waaye mi ngi soqi ko ci ki ma yónni lii dama leen koy wax ci bi may nekk ak yéen waaye dimbali kër bi leen baay bi di yónnee ci sama tur muy xelam mu sell di leen jàngal lépp di leen fàttali li ma leen waxoon lépp jàmm laa leen bàyyeel sama jàmm laa leen jox jàmm ju àddina mënula joxe bu leen jàq bu leen tiit dégg ngeen li ma leen wax dinaa dem waaye dinaa dellusi ci yéen bu ngeen ma bëggoon di ngeen bég ci li may dem ca baay ba ndaxte baay bee ma gën a màgg wax naa leen ko nag léegi balaa looloo ñëw ngir bu waxtu wa agsi ngeen gëm lu weesu tey du amati jot waxtaan ak yéen ndaxte malaaka mu bon mi jiite àddina saa ngi ñëw kooku mënulu ma dara waaye àddina si war naa xam ne bëgg naa baay bi te ni ma ko baay bi sante ni laay jëfe jóg leen te sama baay mooy béykat bi car bu soqi ko ci man te meññul dina ko dog sànni waaye car bu ci meññ dina ko tenqi ngir mu gën a meññ yéen nag baay bi setal na leen jaalale ko ci kàddu gi ma leen wax ni baykat di tenqee garabam sax leen ci man ma sax man itam ci yéen ni cer mënula ame ay doom bu saxul ci garab noonu itam du ngeen mën a meññ li may jëfe ci yéen bu ngeen saxul ci man man ay garab gi yéenay car yi ku sax ci man te ma sax ci moom dina meññ ndaxte bu ngeen saxul ci man du ngeen man dara bu saxul ci man ñu ko sànni ci biti mu mel ni car bu ñu dagg ba mu wow car yu wow nag dañu leen di buub sànni ca safara ñu lakk bu ngeen saxee ci man te saxal samay wax ci seen xol lu ngeen ñaan mu nangu lii feeñal sama ndamu baay moo di ngeen di gën a meññ tey wone noonu ne samay taalibe ngeen ni ma baay bi bëgge noonu itam laa leen bëgge sax leen ci mbëggeel googu ma am ci yéen bu ngeen toppee samay ndigal di ngeen sax ci sama mbëggeel ni ma toppee sama ndigal yi baay ba tax ma sax ci mbëggeelam wax naa leen loolu ngir ngeen bokk ci sama mbég te seen bos mat sëkk sama ndigal mooy ngeen bëggante ni ma leen bëggee genn mbëggeel mënula weesu joxe sa bakkan ngir say samay xarit ngeen ci kaw ngeen def li ma santaane dootuma leen wooye jaam ndaxte jaam du xam li sangam di def xarit laa leen wooye ndaxte xamal naa leen li ma jële lépp ci sama baay du yéen a ma tànn waaye man maa leen tànn sas leen ngeen dem meññ meññeef gu sax ngir baay bi def lu ngeen ko ñaan ci sama tur li may santaane nag mooy ngeen bëggante bu leen àddina bañee xam leen ni man lañu jëkk a bañ ñi bokk ci ñoom lañu bëgg bu ngeen bokkoon ci ñoom dinañu leen bëgg ni ñu bëggee seeni ñooñ waaye bokku leen ci àddina ndaxte maa leen tànn ber leen looloo tax ñu bañ leen fàttaliku leen li ma leen wax jaam gënu màgg sangam bu ñu ma sonalee dinañu leen sonal yéen itam bu ñu toppee sama wax dinañu topp seen wax yéen itam waaye loolu lépp dinañu leen ko def ndax man ndax ndaxte xamuñu ki ma yónni su ma ñëwul woon ne leen dara du ñu am bàkkaar waaye léegi amuñu lay ngir seeni bàkkaar ku ma bañ bañ nga itam sama baay su ma deful woon ci seen biir jëf yu kenn deful kon duñu am bàkkaar waaye léegi nag gis nañu samay jëf te teewul ñu bañ nu man ak sama baay waaye loolu am na ngir kàddu gi am kàddu gi ñu bind ci seen yoon bañ nañu ma ci dara dimbalikat bi dina ñëw mooy xel muy jóge ci baay bi te yor dëgg dina jóge ci baay bi ma yebal ko ci yéen moom nag moo may seedeel yi te yéen itam di ngeen seede samay mbir ndaxte yéen nekkoon ak man ca njàlbeen loolu dama leen ko wax ngir seen ngëm bañ a wàññeeku dinañu leen dàq ci jàngu ya dinañu dem ba jamono joo xam ne ñi leen di rey dañuy xalaat ne ñu ngi màggal turu yàlla dinañu agsi foofu ndaxte xamuñu baay bi te xamuñu ma loolu nag wax naa leen ko ngir bu waxtu wi jotee ngeen fàttaliku ne yëgal naa leen ko waxuma leen ko ca njaalbéen ga ndaxte maa ngi nekkoon ak yéen léegi nag maa ngi dem ci kama yónni te kenn ci yéen laajuma fu ma jëm seen xol dafa jeex ndax li ma leen wax moo na de ci sama wàll dëgg laa leen di wax li gën ci yéen mooy ma dem ndaxte su dul loolu dimbalikat bi du ñëw ci yéen waaye su ma demee dinaa leen ko yónnee te bu dikkee dina yey nit yi ci lu jëm ci seen bàkkaar ci lu jëm ci sama njubte ak ci lu jëm ci àtte ba ci mbiri seen bàkkaar dina leen yey ci lu ñu ma gëmul ci mbiri sama njubte dina leen yey ndaxte maa ngi dem ci baay bi te du ngeen ma gisati ci mbiri àtte ba dina leen yey ndaxte àtte nañu malaaka mu bon mi jiite àddina si ba daan ko li ma leen war a wax bari na waaye du ngeen ko mën a dégg bu xelum yàlla yor dëgg gi dikkee nag dina leen gindi ci lépp li jëm ci yoonu dëgg ndaxte du wax ci coobare boppam waaye lu ko baay bi wax mu jotul leen ko dina leen yëgal mbir yi ñëwagul dina ma màggal ndaxte lu mu leen wax ci man la ko jëlee lépp lu bàyyi fi am maa ko moom looloo tax ma ni leen lu mu leen jotali ci man la ko jëlee ci kanam tuuti du ngeen ma gisati bu ñu ci tegee ab diir ngeen gisaat ma loolu Yeesu wax tax na ba am ca taalibe ya ñu waxante ni lu muy wax nii ci kanam tuuti du ngeen ma gisati bu ñu ca tegee ab diir ngeen gisaat ma ak naan ndaxte maa ngi dem ca baay ba ñu ne teg ca diir lu muy tekki xamuñu li mu bëgg a wax Yeesu gis ne am na lu ñu ko bëgg a laaj mu ne leen dama ni ca kanam tuuti du ngeen ma gis te bu ñu ca tegee ngeen gisaat ma ndax loolu ngeen di laajante ci seen biir ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax di ngeen jooy xàcc waaye àddina dina bég di ngeen jàq waaye seen njàqare dina soppali ko bànneex jigéen ju nekk ci mat dafay jàq ndaxte waxtu bi mu war a jur jot na waaye bu doom ji juddoo dina fàtte coonoom ndaxte day bég ci li doom ji gane àddina noonu nag ngeen di jàqe yéen itam waaye dinaa leen gisaat seeni xol sedd te seen mbég moomu kenn du ko mën a dindi bés boobu dootu leen ma laaj dara ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax baay bi dina leen may lu ngeen ko ñaan ci sama tuur ba léegi ñaanagu leen dara ci sama tuur ñaan leen mu nangu bu ko defee seen mbég mat loolu lépp dama leen koo wax ci ay misaal jamono dina ñëw juma dootul wax ak yéen ci ay misaal waaye ma leen dee wax lu leer ci Baay bi bu keroogee di ngeen ñaan ci sama tur néew ma naa leen ñaanal baay bi ndaxte baay bi ci boppam bëgg na leen bëgg na leen ndaxte bëgg ngeen ma te gëm ngeen ne ci yàlla laa jóge jóge naa ci baay bi ñëw àddina léegi maa ngi génn àddina fekki baay bi taalibe ne ko léegi yaa ngi wax lu leer te misaaloo léegi gis nañu ne xam nga lépp te soxlawul kenn di la laaj dara looloo tax nu xam ne yaa ngi jóge ci yàlla yeesu ne leen ndax gëm ngeen léegi waxtu waa ngi ñëw te agsi na ba noppi di ngeen tasaaroo ku nekk ñibbi ma des man rekk waaye nag déedéet weetu ma te baay baa ngi may wettili dama leen wax loolu ngir ngeen am jàmm ci man di ngeen am nattu ci àddina waaye takk leen fit yi noot naa àddina bi mu waxee loolu ba noppi yéesu dafa xool ci kaw ne jàkk asamaan ñaan yàlla ne baay waxtu wi tax ma ñëw ci àddina egsi na feeñalal ndamu doom ji ngir moom itam mu mën a feeñal sa ndam ndaxte jox nga ko sañ-sañ ci bépp mbindeef ngir mu may dundu gudul jeex gi ñi nga ko dénk dundu jeex gi nag moo ñu xam la yow jenn yàlla ju wóor ji am te ñu xamit ki nga yónni muy Yeesu Kirist wane naa sa ndam ci àddina ndax li ma matal liggéey bi nga ma santoon léegi nag baay ci sa teewaay feeñalal ci man ndam li ma amoon ci sa wet laata àddina di sosu xamal naa sa tur nit ñi nga tànn ci àddina sa dénk ma leen bokkoon nañu ci yow nga dénk ma leen te sàmm nañu sa kàddu xam nañu léegi ne loo ma joxan ci yow la jóge ndax ndaxte xamal naa leen kàddu yi nga ma jox te nangu nañu ko wóor na leen ne ci yow laa jóge te gëm nañu ne yaa ma yónni ñoom laa ñaanal ñaanaluma waa àddina waaye maa ngi ñaanal ñi nga ma dénk ndax ci yow lañu bokk lu ma am yaa ko moom te loo am maa ko moom te ñoom ñoo feeñal sama ndam nekkatuma ci àddina waaye ñoom ñu ngi ci man ci yow laa jëm baay bu sell bi sàmm leen ci sa doole tuur woowu nga ma jox ngir ñu nekk benn ni ñu nekkee benn man yow bi ma nekkee ak ñoom daan naa leen sàmm tur bi nga ma jox wattu naa leen ba kenn ci ñoom sànkuwul wul dul kii aji réer ji ngir li mbind mi waxoon am waaye léegi maa ngi jëm si ci yow te maa ngi wax nii ci bi may nekk àddina ngir ñu fees ak sama mbég jottali naa leen sa kàddu te àddina bañ leen ndax li ñu mel ni man bañ bokk ci àddina soosu ñaanuma nga jële leen àddina waaye nga yiir leen ci iblis dañoo mel ni man bokkuñu ci àddina samp leen ci dëgg ngir ñu sell sa kàddu mooy dëgg ni nga ma yónnee àddina noonu laa leen yónnee ci nit ñi sellal naa sama bopp ngir ñoom ngir ñu samp ci dëgg te sell ñaanal lu ma leen ñoom rek waaye itam ñi may gëm ëllëg ndax seen wax damay ñaan ngir ñépp doon benn baay na ñu nekk benn ci nun ni nga nekke ci man te ma nekk ko ci yow nañu ànd ba àddina gëm ne yaa ma yónni boole naa leen ci ndam li nga ma sol ngir ñu àndandoo ni ñu ànde man ak yow man ci ñoom yow it ci man ngir ñu gën a ànd nekk benn ba àddina xam ne yaa ma yónni xam ne bëgg nga leen ni nga ma bëggee baay bëgg naa ñi nga ma dénk nekk ak man fa ma jëm ngir ñu gis sama ndam li nga ma sol ndaxte bëgg nga ma laata àddina di sosu baay yow ku jub ki waa àddina xamuñu la waaye man xam naa la te ñii xam nañu ne yaa ma yónni xamal naa leen sa tur te dinaa ko gën a xamle ngir mbëggeel gi nga am ci man nekk ci ñoom te man ma nekk ci ñoom bi mu waxee noonu ba noppi yeesu jóge fa ak i taalibeem dugg ci tool There was a garden in that place, and Jesus and his disciples went in. Yuda mi ko naroon wóor xamoon na it barab ndaxte Yeesu daan fa dem ak ay taalibe Judas daal di fa dem yóbbaale mbooloom xarekat ak ay alkaati yu ko sëriñ su mag sa ak pharisien yee jox ñu yor ay jum ak ay làmp ak it gànnaay noonu yeesu mi xamoon li ko waroon a dal lépp jub leen ne leen ku ngeen di seet ñu ne ko yeesum nasaret fekk yudaa mi ko nara woor ma nga ànd ak ñoom yeesu ne man la bi leen yeesu ne man la ñu daldi dellu ginnaaw ba daanu Yeesu laajaat leen ne ku ngeen di seet ñu ne ko Yeesu Nasaret mu ne leen wax naa leen ne man la bu fekkee ne nag man ngeen di seet bàyyi leen ñii ma àndal ñu dem noonu la baat boobu mu waxoon amee baay kenn sànkuwul ci ñi nga ma dénk bi Yeesu waxee loolu ba noppi Simon Pierre bocc ci jaasi ji mu yoroon daal di dóor surgaab sëriñ bu mag ba nopp ndeyjooram dagg surga boobu mi ngi tuddoon Malchus waaye Yeesu ne Pierre roofal jaasi ji ci mbaram ndax waruma naan kaasu naqar bi ma baay bi sedd mbooloom xarekat ya ak seen kilifa ak alkaati yi yawut ya jëkk ko yóbbu ca anaas ndaxte anaas mooy gorob kayif mi doon sëriñ bu mag ba at mooma kayif moo digaloon yawut ya ne li gën moo di kenn rekk dee ngir mbooloo mi mucc bi ñuy yóbbu yéesu simon pierre ak keneen ca taalibe ya toppoon nañu ko keneen kooku nag xamante na ak sëriñ bu mag ba moo waral mu duggaaleeg yeesu ca biir kër kilifa ga waaye pierre moom des ca buntu kër ga noonu taalibe boobu xamante woon ak sëriñ bu mag ba génn wax ak jigéen di doon wattu buntu kër ga fexe pierre dugg ci biir mi naan mi doon wattu buntu bi ne pierre mbaa yow it bokkuloo ci taalibe waa ji mu ne ko déedéet bokkuma ci booba dafa seddoon ba surga ya ak alkaati ya booyal ab taal di ca jaaru Pierre itam taxaw di jaaru ak ñoom sëriñ bu mag ba di laaj Yeesu ci lu jëm ci taalibeem yi ci njàngaleem mi Yeesu tontu ko ni ci mbooloo laa doon waxe ca kër yàlla ga ak ci ay jàngu fa yawut yépp di daje laa mas di jàngale musuma wax dara di ko nëbb lu tax nga may laaj laajal ñi doon déglu li ma leen wax ñoom xam nañu li ma doon wax bi Yeesu waxee loolu kenn ci alkaati yi nekkoon ci wetam daldi koy pes ne ko ndax nii ngay tontoo sëriñ bu mag bi Yesu tontu ko ni su ma waxee lu jaaduwul wone ko waaye su ma waxee lu jub tax nga may dóor daal di koy yebal ci Kayif sëriñ bu mag ba ñu yeew ko ba tey fekk na booba Simon Pierre moom ma nga taxaw di jaaru rekk ñu laaj ko ni mbaa yow it bokkuloo ci taalibey waa ji waaye Pierre weddi ko ne déedéet bokkuma ci kenn ca surgay sëriñ bu mag ba di mbokk ka Pierre coroon noppam ne Pierre xanaa du yow laa gisoon ak moom ca tool ba waaye Pierre dellu weddi ko noonu ginaar daldi sab bi loolu wéyee ñu jële yeesu ca kayif yóbbu ko ca kër borom réew ci waxtu njël la woon waaye yawut ya yéeguñu ca taaxum kaw ma dañoo bañoon a takk sobe ngir mën a lekk ca ñamu màggalu jéggi ba looloo tax pilaat boroom réew ma génn dajeek ñoom mu laaj leen ni lu ngeen di jiiñ waa ji ñu tontu ko ne bu deful woon lu bon bu ñu la ko jébbal si pilaat ne leen jël leen ko yéen te atte ko ci seen yoon yawut yi ne ko yoon mayu ñu ñu atte nit teg ko dee noonu la kàddu yeesu gi amee ci li mu misaaloon ni mu war a faatoo ginnaaw loolu pilaat duggaat ca taaxum kaw woo yeesu ne ko ndax yaa di buuru yawut yi yeesu tontu ko ne ndax yaa ko xalaat wax ko am dañu la ko xelal ci man pilaat ne ko mbaa xalaatoo ne man yawut laa sa xeet ak sëriñ su mag si ñoo ma jébbal lan nga def yéesu tontu sama kilifteef nekkul ci àddina bu sama kilifteef nekkoon àddina sama surga yi dinañu xeex ngir bañ ñu jébbal ma yawut yi waaye sama kilifteef nekkul àddina Pilaat ne ko kon yow buur nga yéesu tontu ko wax nga ko buur laa lii moo tax ma juddu ñëw àddina ngir wax dëgg gi ku bokk ci dëgg gi dina nangu li ma wax Pilaat laaj ko ne luy dëgg gi bi loolu ba noppi jëm ca yawut ya ne leen gisuma ci moom genn tooñ seen aada laaj na ma bàyyi leen kenn saa su ñuy def màggalu bésu jéggi bi xanaa ma bàyyi leen buuru yawut yi noonu ñu daal di yuuxuwaat déedéet waxuñu kii barabaas la wax fekk barabaas moomu taskatu réew la woon noonu pilaat joxe ndigal ñu dóor yeesu ay yar xarekat ya ràbb kaalaak dégg teg ko ci bopp Yeesu solal ko mbubbam xarekat mu xonq cuuru ñu di ko jegeñ si di ko pees naan ko nuyu nañu la yow buuru yawut yi Pilate went back out once more and said to the crowd gis ngeen maa ngi leen koy indil ci biti ngir ngeen xam ni waa ji gisuma ci moom genn tooñ. waa jaa ngi Yeesu nag génn tegoo mbubam xarekat mu xonq mi ak kaalak dikk waaye bi ñu ko gisee suñ su mag ak alkaati yi di yuuxu naan daaj ko ci bant daaj ko ci bant ba mu dee Pilaat ne leen jël ko yéen daaj ko ci bant ndaxte gisuma ci moom genn tooñ yawut yi tontu ko aw yoon te yoon woowu war naa dee ndaxte teg na boppam doomu yàlla bi Pilaat déggee wax jooju dafa gën a tiit dugg ca taax ma daal di ne Yeesu foo jógee waaye Yeesu tontuwu ko Pilaat ne man ngay bañ a waxal xanaa xamuloo ni am naa sañ-sañu bàyyi la te am naa itam sañ-sañu daaj la ci bant Yeesu tontu ko ne amuloo benn sañ-sañ ci man su dul bi la yàlla jox looloo tax ba ki ma jébbal ci say loxo am na bàkkaar bi gën a rëy booba fexe bàyyi Yeesu waaye yawut yi di yuuxoo naan boo bàyyee kii doo xaritu buur bi César nit ku teg boppam buur noonub César la bi Pilaat déggee loolu mu daal di génne Yeesu ca biti dem toog ci jàllub àttekaay ba te fa ñuy wax bérébu doje ci làkku yawut ñu naan ko Gabata ci bés bu ñuy waajal màggalu jéggi bi ba la woon ca wetu diggu bëccëg pilaat ne yawut ya seen buur a ngi waaye ñu yuuxoo naan na dee na dee daaj ko ci bant pilaat ne leen ndax seen buur bi dama ko war a daaj ci bant sëriñ su mag sa ne ko amuñu benn buur bu dul César noonu pilaat jébbal leen Yeesu ni ñu daaj ko ci bant bi leen ko pilaat jébbalee ñu jël ko yóbbu yeesu ci boppam gàddu bant ba génn ngir dem ca fa ñuy wax bérébu kàngu ñu koy wooye golgota ci làkku yawut foofu la xarekat ya daaje yeesu ca bant ba ci noonu it ñu daajaale ñaari nit ci wetam mu nekk ca digg ba pilaat santaane itam ñu bind teg ko ci kaw bant ba ñu ko daajoon mbind ma lii la wax kii mooy yeesum nasaret buur yawut yi mbind mooma yëwut yu bari jàng nañu ko ndaxte fa daajoon yeesu bant ba jege na dëkk ba te mbind ma ci làkku yëwut la woon ci làkku waaroom ak ci grek noonu sëriñ su mag su yëwut ya pilaat bul bind buur yëwut bindal rekk kii moo ni mooy buur yëwut yi pilaat tontu leen ne xas naa koo bind du deñ xarekat ya bi ñu daajee yeesu ca bant ba ba noppi dañoo jël ay yéreem séddale ko ñeenti cër ku nekk benn jël nañu it mbubbam bi ñu ràbbi ci kaw ba ca suuf te amul benn ñaw xarekat yi di waxante naan mbubb mi bu nu ko xotti waaye nanu ko tegoo ay bant ngeen xam ko koy moom noonu la mbind mi waroon a amee bi mu naan séddoo nañu samay yére te ko ay bant sama mbubb loolu nag la xarekat ya def ca wetu bant ba ñu daajoon yéesu yaayam a nga fa taxawoon moom ak doomi ndeyam ju jigéen maryaama jabari kolopaas ak maryaama mi dëkk magdala bi yeesu gisee yaayam taxaw ci wetu taalibe bi mu bëggoon mu ne ko soxna si sa doom a ngi neeti taalibe ba sa yaay a ngi nii booba la ko taalibe ba yóbbu këram yor ko Jesus knew that by now everything had been completed. bi loolu wéyee ginnaaw Yeesu xam na ne lépp mat na léegi mu ne nag ngir amal mbind mi dama mar amoon na foofu gut bu fees ak bineegar noonu ñu jël sagar tooyal ko ca takk ko ci bantu garab yu ñuy wax isop teg ko ci gémmiñu yeesu bi yeesu muucoo bineegar bi mu ne lépp mat na noonu mu sëgg delloo ruwaam yàlla keroog ba ñu dee waajal bisu noflaay ba la woon te yawut yi bëgguñu néew ya des ca bant ya ndaxte bisu noflaay boobu fonkoon nañu ko lool ñu ñaan pilaat mu damm lu tànk yi ña ñu daajoon te jële leen fa

ca saasa deret ak ndox di tuuru ki nettali mbir yooyu da cee teg bëtam te li muy wax dëgg la moom ci boppam xam na ni li muy wax dëgg la ngir yéen itam ngeen gëm ndaxte loolu dafa xew ngir bind mi am benn yaxam du dam lenn mi wax na ko dinañu gis ki ñu jamoon ginnaaw loolu yuusufa fi dëkk arimate ñaan pilaat ngir yóbbu néewu yeesu yuusufa taalibe yeesu la woon ci lu kenn yëgul ndaxte dafa ragaloon yawut ya Pilaat may ko ko Yusufa daldi dem yóbbu néewu yéesu ni Yeesu Nikodem itam ñëw moom mi mosoon a seeti Yeesu guddi mu indaale lu war a tolloog fanweeri kilooy cuuraay lu ñu defaree ndabi miir ak banti aloos ñu jël néewu Yeesu laxas ko ci càngaay boole ko ak cuuraay li ni ko yawut yi taamoo def bu ñuy waajal néew toola nga woon ca wetu barab ba ñu daajoon Yeesu te ca tool booba amoon na fa bàmmeel bu ñu musula suul kenn te bisu waajal la woon ba yawut ya doon waajal bisu noflaay te bàmmeel ba jege woon na foofa lañu denc Yeesu bés ba jiitu ca ayu bés la Maryaama Magdala jóg ca fajar dem ca bàmmeel ba bi mu egsee mu gis ne dindi nañu xeer wa ñu ko ubbee woon mu daw dem ca Simon Pierre ak ca beneen taalibe ba maanaam ka Yeesu bëggoon ne leen jële ba ca bàmmeel ba te xamuñu fa ñu ko yóbbu Pierre ak beneen taalibe ba daw dem ca bàmmeel ba ñoom ñaar ñépp a ngi doon daw waaye beneen taalibe ba raw Pierre jëkku ko ca bàmmeel ba dugg gul nag dafa sëgg yër seen càngaay la ca suuf noonu Simon Pierre mi ko toppoon agsi daal di dugg mu seen càngaay la waaye kaale googu àndul ak càngaay la dañu ko laxas teg ko ci wet noonu keneen ka jiitu woon ca bàmmeel ba dugg ci moom itam naka la gis daldi gëm taalibe yi xamaguñu woon mbind mi doon wone ne Yeesu dafa war a dekki noonu taalibe yi dëpp ñibbi moom ma nga desoon ci biti ci wetu bàmmeel ba di jooy bi muy jooy mu sëgg yër ci biir seen ñaari malaaka yu sol mbubb yu weex toog ca barab ba ñu dencoon Yeesu kenn ka féeteeg bopp bi ka ca des ca tànk ya malaaka ya laaj ko ne jigéen ji looy jooy mu tontu leen ne dañoo jël sama boroom te xawma fu ñu ko yóbbu bi mu waxee loolu mu gestu seen yeesu mu taxaw waaye xamul woon ni moom la yeesu laaj ko ne jigéen ji loo jooy koy seet mu foog ni boroom tool ba la ne ko sëriñ bi su fekkee ne yaa ko yóbbu wax ma foo ko denc ma jëli ko noonu yeesu ne ko maryaama mu wëlbati lakk ko ci yawut ne ko mooy tekki kilifa gi yeesu ne ko bu ma téyee ndaxte yégaguma ca baay ba waaye demal ni samay mbokk maa ngi yëg ci sama baay bii seen baay te sama yàlla diiseen yàlla noonu maryaama magdala dem yëgali ko taalibe ya ne leen gis naa boroom bi mu daldi di leen nettali li mu ko wax bés booba ca ngoon sa taalibe yaa nga daje woon ca genn kër tëju ca biir ndax ragal yawut ya yeesu ne tëll ci seen biir ne na jàmm wàcc ci yéen mu daldi leen woon ay loxoom ak wetam bi ñu gisee boroom bi taalibe daldi bég lool yeesu dellu ne na jàmm wàcc ci yéen ni ma baay bi yónnee noonu laa leen di yónnee man itam bi mu waxee loolu mu ëf leen ne leen sol naa leen xelu yàlla mu sell mi ñi ngeen di baal seeni bàkkaar baal nañu leen ba noppi ñi ngeen balul baaluñu leen fekk na Thomas mi bokk ci fukki taalibe yi ak ñaar te turam di tekki seex bi nekk foo woon bi Yeesu ñëwee yeneen taalibe yi ne gis gis ñu boroom bi waaye mu ne leen su ma gisul fa ñu daajoon ponte ci ay loxoom te defuma ci sama baaraam su ma tegul it sama loxo ci wetam duma ko gëm ba ñu ca tegee ayu bés taalibe yeesu ya dajewaat ca biir kër ga tomaa itam a nga fa woon bunt yépp tëju woon nañu waaye yeesu ne tëll ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen noonu mu ne tomaa indi sa baaraam fii te seet sama loxo indi sa loxo teg ko ci sama wet bàyyil di weddi te nga gëm Tomaa tontu ko ni sama boroom sama yàlla Yeesu ne ko li ma gis a tax nga gëm kii bég mooy ki gëm te gisuma yeesu wone na ne it ci kanamu taalibe ya yeneen firnde yu ñu nettiwul ci téere bii waaye li ci nekk bind nañu ko ngir ngeen gëm ne yeesu mooy almasi bi doomu yàlla ji te seen ngëm may leen ngeen am ci moom dund gi ba ñu ca tegee ab diir yeesu feeñuwaat na ay taalibeem ca tefesu dex ga ñuy wax Tiberiyaad nii la deme taalibe yeesu yi àndoon nañu Simon Pierre Thomas ki turam di tekki seex bi Natanayel mi dëkk Kana ca diiwaanu Galile doomi Sebede ak yeneen ñaari taalibe Simon Pierre ne leen maa ngi nappi ñu ne ko nu nit dañuy ànd ak yow ñu dugg gaal daldi dem waaye guddi googu jàppuñu dara ca fajar gi yeesu taxaw ca tefes ga waaye taalibe yi xàmmewuñu ko yeesu ne leen nag mbokk yi xanaa jàppu leen jën ñu ne ko déedéet mu ne leen sànni leen mbaal mi ca ndeyjooru gaal gi bu ko defee ngeen jàpp ñu mu fees ak jën ba mënuñu ndox mi taalibe ba yeesu bëggoon ne Pierre borom bi la Simon Pierre déggee loolu dafa woddoo mbubbam ndaxte dafa summeeku woon daal di sóobu ci dex gi yeneen taalibe ya xëcc mbaal ni fees dell ak jën jëme ko ci tefes ga ndaxte gaal go soriwul woon diggante bi waroon naa tolloog téeméeri meetar bi ñu teeree ñu gis ab taal ñu ciy lakk ay jën teg mburu ca wet ga Yeesu ne leen indi leen ci jën ngeen jàpp. Simon Pierre yéeg ca gaal ba daal di xëcc mbaal ma ca tefes ba mu fees dell ak jën yu mag matoon na téeméeri jën ak juróom fukk ak ñett te li muy bari bari lépp taxul mbaal ma doog Yeesu ne leen ñëw leen ndekki kenn ci taalibe yi ñëwu koo laaj ci mu doon ndaxte xam nañu ne. borom bi la yeesu jigéen si jël mburu mi jox leen jox leen it jën bi yeesu dekkee ba tey bi mooy ñetteelu yoon bi mu feeñoo ay taalibeem bi ñu ndekkee ba noppi yeesu ne Simon Pierre Simon doomu Yowaana ndax gën nga maa bëgg ni ma ñii bëggee mu tontu ko ne axa ah, borom bi xam nga ni bëgg naa la yeesu ne ko toppatool ma sama mbote yi noonu mu waxaat ko ni Simon doomu Yowaana ndax bëgg nga ma mu ne ko axa borom bi xam nga ni bëgg naa la Yeesu ne ko sàmmal ma sama xar yi mu neeti ko ñetteel bi yoon Simon doomu Yowaana nga maam Pierre am na naqar ci li mu ko laaj ñetti yoon ndax bëgg nga ma mu tontu ko ne boroom bi xam nga lépp xam nga ni bëgg naa la yeesu ne ko toppatool ma sama xar yi ci dëgg-dëgg Pierre maa ngi la koy wax bi nga ndaw yaa doon takk sa giño di dem fu la neex waaye boo màggatee di nga tàllal say loxo keneen takkal la sa giño yóbbu la foo bëggul ci baat yooyu la Yeesu doon misaale nan la Pierre war a faatoo ngir jollil ndamu Yàlla noonu Yeesu ne ko toppal ci man Pierre gestu gis taalibe bi Yeesu bëggoon di ñëw ci seen ginnaaw taalibe boobu mooy ki sonn woon ca Yeesu ba ñuy lekk te laajoon ko ne borom bi kan moo lay wóor Pierre gis ko daal di ne Yeesu kii nag borom bi nu muy mujjee Yeesu ne ko su ma neexoon mu dund ba ma dellusi lu ciy yoon yow toppal ci man noonu am mbokki taalibe yi ñu xalaat ne taalibe boobu du dee moo ne Yeesu musul ne Pierre du dee waaye li mu wax mooy su ma neexoon mu dund ba ma dellusi lu ci sa yoon taalibe boobu mooy seede mbir yooyu bind leen te xam nañu ne li muy wax dëgg la Yeesu def na yeneen jëf yu bari suñu ko doon nettali bind lépp xalaat naa ni téere yi duñu xëcc ci àddina